salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum nu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen gërëm xaaral ma jékki-jékkalaat sama semis bi sax balaa muy mel ne yëfi fëgg jaay te fëgg jaay leen ko jëndee exactement maa ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen gërëm ci ànd bu rafet bi ngeen di wéy di ànd programme 2STV saa su ngeen xëyee di taataan ak a dallu ak a teewlu sunu ay programme file ci 2STV da ngeen. dal ngeen jàmm beneen yoon ci ce matin c'est à mooy émission bi ñu leen di jiital bi ñuy njëkk amal tey jile euh, saay suñu yeewoo ci 2STV li ko dalee 9 ba 10 h ma ci ànd ay ndaw ñu xarañ yàgg liggéey ci wàllu communication tey di gëstu ay gëstu yu yaatu balaa ñu dikk ci plateau bi. ni ñu koy defee alxames bu jot saay suñu xëyee dinañ ànd ak Corombaar Ndiaye mu demal ñu ci actualité people lu ñuy nàmm na lu ñuy xaar la lu ñuy néggandiku la moom Corombaar Ndiaye. balaa muy def people dina dikk ak ñun ci kër yéenikaay yi li ñu xëy euh, nafar. Euh, mu nafaral nu ko bokk lañu xëy xaatim moom Coro Mbaar Ndiaye dina dikkaat ak ñun si ci bien-être bu ñu ca jugee Adjara Cissé madame Bonardi sera là pour nous parler de l'environnement elle a beaucoup recherché sur comment ces matières plastiques impactent sur l'environnement de notre euh, euh, quotidien alors euh, il y a aussi Nafi Dieye aujourd'hui qui a un invité très très spécial que nous vous euh, réservons comme surprise Nafi Dieye sera là pour sa rubrique culture Mamadou Mbaye est aussi sur le plateau On va essayer de parler de euh, Black Friday, c'est quoi l'origine qui le célèbre au Sénégal peut-être. On y reviendra dans cette émission. Salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi Thioro Mbar Ndiaye toute ravissante, chaque matin avec un sourire au bout des lèvres super méga sublime. Thioro bonjour. Bonjour Pape Sidi. Comment vas-tu? Je vais Tu as la forme? Ça Et la formation? Formation olympique euh, <laughs> Comme dit Moussa voilà maa ngi lay nuyu bu baax c'est un plaisir de vous retrouver mais également c'est ce même plaisir qui nous anime quand on doit retrouver les téléspectateurs de ce matin c'est à nous sur la 2STV nuyu nañu leen bu baax dem mbégte ak bànneex ñëwaat ak yéen ci seen matinale ni nga ko waxee Pape Sidi tout à l'heure dinañu ñëw ci li nga xamante ne moom moo di bien-être ñuy wax nag tey naka la ñuy def ba euh, prendre soin de nos cuticules dinañ ci ñëw ci kanam tuuti cuticule tu connais. je connais pas c'est quoi que tu kills. d'accord dinaa la ko wax ci kanam tuuti ginnaaw gi dinañu ñëw ci revue des titres buñ ci jógee nag dinañu dem ci li nga xamante ni moom mooy euh, information yi soxal célébrité ci réew mi ci biti réew on en reparle tout à l'heure inchallah cuticule on y reviendra tout à l'heure du yàgg dara ah. dama ci daal di toftal nuyu Adjara Cissé madame Bona Bonardi tout en souhaitant prompt rétablissement à la euh, diva à la chérie à la à la superbe, géniale Khadjata Niansi, qui est un peu souffrante ces derniers temps. Hein. Yàlla nga fan ak jàmm, c'est que tu avais un rythme de mène. Ça, c'est pas un rythme de femme. Bon, tu es tombée malade, mais bon, on te souhaite euh, bonne guérison et tu vas, j'espère, bientôt retrouver ton travail et tes euh, millions de followers qui te regardent à travers la 2STV. mbokku téléspectateurs yi tey cuticule la ñuy waxtaanee ci euh, bien-être ak Coro Mbar Ndiaye. Nafi Dieye Dieye Massamba Fally Maane Maane Ndiaye. déedéet. et cetera et cetera du noonu Dieye <laughs> Massamba ak Yérim Nder la monsieur Lambaye surtout la Soukabé Ngoni Dieye ak Massamba Dieye. Eh eh, eh, eh eh xam sa bopp yenn yi c'est pas normal. sama ah. maama ne woon du ma dem Sine du ma dem Saloum. sa maam moo waxoon du dem Sine du dem Saloum. moo tax waa Sine ak waa Saloum ko séntu. <laughs> sa maam daal bëggoon naa ñàkk bañ a ñëw dëkk ba. na fi maa ngi lay nuyu. ça va namoon naa la. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. naka activité yi. ça va tout va bien. coxu tuuti toute belle surtout comme Mamadou lu tax yéen ngeen di assortir seen ay couleurs. ñun dañoo bëggante dañoo bëggante. kii génn dans le underground. Awa Ndiaye yëgugu ko. bu koy awa di yëg ma ah, koy ma koy dans la rubrique culture dinañ fi euh, père Idriss Diop, Inch'Allah. Il va parler de l'industrie euh, culturelle sénégalaise, mais aussi parler son nouvel euh, album, Bunga Hamantini Diamonoji. Ça est en train de faire beaucoup de bruit euh, partout sur les ondes médiatiques. Ce sera tout à l'heure. Ce sera tout à avec père Idriss Diop. Dama leen ko bëggoon a defal surprise, mais Nafi moom ñëw na ne leen ko réel. <laughs> Marajax amul benn difficulté Mamadou Mbaye ma faali Dama Kumba tax bi Séeri Awa Ndiaye maa ngi lay nuyu te di la Ah maa ngi lay fay faal. foofu ma génn nooy na. ah Fall fi génn nooy na lépp. ñaata ñaata laa yor. Eh, bu ma fayeekoo naa la jox junni. ah bu ma fayeekoo. ma. fayeeku bi jege. Fall tey ñaata tey la ñaata si weer. tey la 23. ah tey la <laughs> ah, ngeen fayeeku waa 2 <laughs> maa ngi lay siyaare bu baax a baax di siyaare Coro Mbaal Njaay Coro fi mu génn ci kaw foofu laa génn ci suuf fi génn ci kaw moom foofu la génn ci suuf. loolu de la yàlla dogal. def maa ngi lay bëggee Nafi Dieye. Jéy Masamba maa ngi lay siyaare Jéy Masal Samba ak Yérim mm-hmm. maa ngi lay bëggee mbokk yéen tamit ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di am mbégte kontaan di jàkkaarloo ak yéen comme ni ko gars yi waxee rek sama matin setaanu jug ngir bëggalante ak yéen ah ci suba xibaar leen ak jox leen yenn xabaar yi nga xam ne jotu leen koo yittewoo ak jotu jotu leen koo jot Coro de maa ngi koy bu nekkee mag ne loolu la yàlla dogal fa mbay Coro boo màggee meeri jonge yooyu ngay doon incha allah je te le jonge de bu ñu ko dindee jigéen dara dara tu ca boo gisee jigéen gu jonge wut jëlal te ba mag ko jonge non meeri jonge yooyu laa wax quoi. waaw dégg nga ma ne la jonge bu dee nag ku jonge wul nga bëgg jëlal te ba mag ñi jonge non je te jure internationalement. faire beaucoup de dégâts en même temps quand je parle, on le dit souvent. Adjara Sissé et Madame Bonardi euh, nous revient aujourd'hui pour nous parler de l'environnement. Adjara, bonjour d'abord. Bonjour Pape Comment vas-tu Ça va, je vais bien. yaa ngi si jàmm. Ça va. Naka Elle a volé mon rouge à lèvres. ah bon tey moom dañoo déggoo maag moom on s' on est senti. <laughs> waaw. <laughs> c' est que c' est vrai que plateau bi bëri na ay sensations sensibles ah. <laughs> yu sensibilisable sensibilisation ajara <laughs> aja ajara tey yow yaa ñu war defal actu du net bu ànd ak dogalu yàlla. wala maane sant la dara. tey daal maane daal daa xëy rek na ma yaay actu donc jëm naa ko lu jënti daal. incha allah kon dinañ xam li ñu xibaar Cutukis moom bu doon Thioro Mbaye Ndiaye tey loolu ngay def. bien ne waxuma Cutukis de. loo wax. L E S. boo demee dëññ lay doon rek mbaa mat. <laughs> dëññ waaw rien à voir. Ah. Je fais d'abord un big coucou à mon père Missa nag Mbar je te fais un gros bisou mon amour éternel euh, Pape Sidi cuticule mooy li nga xamante ne moom mooy nekk. noonu lu sew lay doon cuticule <laughs> mo yow fel nga fi wax <laughs> wala mat. <laughs> wala ay dëñ affaire yooyu man xamoon naa ne sew peut <laughs> mooy lii nga xamante ne moom moo dinañ leen ko wan léegi ci benn image moom moo wër sunu ay euh, we mooy sama yii di xolleeku ni voilà léegi nag boobu sax nag ci la ñuy euh, ñëw parce que yenn saa yi saa di dañ naan sa loxo yi dafa ñam sa baaraam yi dafa ñam donc souvent dañuy gis nit ki di ko xool li mën na la gaañ mën na la agressé ak yu mel noonu mm-hmm. souvent tam ñi nga xam ne dañuy màttuwee ñi mel comme man léegi sax bàyyi naa donc euh, dañuy faral également di am problème ak seen euh, cuticule yi donc nekk na lu nga xamante ni dafay euh, non seulement dafa am ay ngëneel parce que suñu wee daf koy soxla waaye nag dafay rafetal itamit loxo souvent gis nga ko nii boo xoolee booy def pédicure booy def manucure li nga xamante ne moom la ñuy utiliser di pouce bi di appareil di ma di Euh, kii bii mu yore outil bi moom la ñuy faral di ko euh, dindee yi nga xamante ne moom moo ci bokkatul ñu koy wax yenn saa yi peau morte ak yooyu donc cuticule dafay joue rôle bu majeur ci protection li nga xamante ni moom moo di suñu ay euh, we parce que moom mooy jouer rôle lu entre suñu wee ak euh, bactéries yi maintenant li nga xamante ne moom moo di cuticule yooyu itamit dañu wax di ko toppatoo mooy tax yenn saa yi ñuy def manucure am na soin yu bëri yoo xam ne buñ ko dee def produit yu ñuy utiliser day tax cuticule bi mën a nooy bu ko defee nga mën a dindi li ci bokkatul euh, te doo gaañ sa euh, bopp donc ba tax na rek li nga xamante ne moom moo di cuticule yi dañuy wax ni dañ ko war a toppatoo comme ni ñuy toppatoowee suñu ay wee donc euh, am na ay huiles yu nga xamante ne daf ciy baax yu ci mel ni huile de ricin huile de coco huile d'olive wala beurre de karité bi également baax na ci li nga xamante ne moom moo di euh, cuticule euh, yooyu le ngir mu bañ non seulement ñu mën ko nourrir mais également mu bañ di wow ak di ñam ba di ñu gaañ mais également même ci grande surface yi di nga am ay produits yu nga xamante ni moom ngay mën a appliquer ci sa loxo yi ngir mu mën a protéger cuticule yooyu la mm. donc dafay baax ñu di ko euh, toppatoo mais également di dindi lépp lu nga xamante ne bokk ci parce que ni ma ko waxee sànq moom mooy barrage entre suñu ay ongle ak bactéries yi mm. mais également moom mooy protéger euh, suñu ay ongle cuticule yi mën na oh, yi mool mais kaw cuticule yi moticule yi mooy si kaw der bi noonu <laughs> yooyu am problème c'est que yow say moticule say moticule xam tax mu am problème ah. póot mi ngeen dëkkee. <laughs> mooy fóotu Mamadou. <laughs> Fall xam nga yéen célibataire yi ci póot ngeen dëkk. <laughs> ah Mamadou nag fóotu ma. ah Fall doo fóot. du ma fóot. am na yooyu fóotal sa bopp. yooyu noonu laa lay expliqué. waaw yooyu moom póot moom xam nga ñun duñ ko koy fóotal. Ah. yow nag ci póot mi nga nekk moom it. Fall bàyyi póot mi. dañ joxe ñu lay fóotal. Ah. utal lu tax ñu lay fóotal moom man ngay def nii. en direct en direct fi nga ma ko waxoon dama gàmmu déwén dina fekk. ma géré ko Fall ma géré ko. ba ko waxee lu ma la wax. nga ne ma. <laughs> mbay gàmmu bii ñëw ñetti at après du ko tax mu am. yow moom da ngay rêvé noonu rek <laughs> man moom pare naa des dal naa sama décision ba jàpp dat. daaw lii nga waxoon. <laughs> kañ la dat la. ma la ko wax. parce que du ma ko jegal sama anniversaire sax. xanaa doo maa war yow ñaan nga ba pare. daf lay mel ne ku xamul li xew di. man yëguma dara li xew. xam nga naas banaa ko. <laughs> dangaa ba naas. xanaa gisoon turu groupe bi nga naan ma ay affaire yu américain <laughs> Mamadou Mbaye Coro Mbaye Ndiaye kiti gis bi mu indi baax na kiti gis nag baleen di ko xasan parce que gis kenn du ko xasan li may wax amul rapport bu leen ci kenn def rapport <laughs> léeg-léeg kiti gis dugg foo xam ne nag waru faa dugg Mamadou waaw. Paal. pot mi la rek. ki di gis ci a dugg rek fu mu dugg fu mu dugg rek ci pot mi la. <laughs> Aïcha Adjara Cissé madame Bonardi euh, aujourd'hui c'est toi qui nous fais l'actualité du net euh, internet bi lan la ñu waxtaanee lan moo ci gën a fës lan moo ci gën a siiw. alors li gën fës tey jii bokk na ci euh, déclaration bi nga xamante ne Serigne Mbaye Sy di xalif général di Tidiane def na ko moom daal li mu xamle bokk na ci que ni président Macky Sall jamais deux sans jamais un sans deux c'est-à-dire que ni dina am. deuxième mandat incha allah donc ci euh, xam-xamam donc <laughs> moom daal loolu la xam ne tey ji mhm. ah. ok voilà alors deuxième actualité euh, bokk na ci euh, li nga xamante ni moom mooy euh, refus bi ñu refusé liberté provisoire Khalifa Sall ndaxte tey ji démb moo nekkoon deuxième fois ñu doon def appel donc voilà donc mujj nañ ko refusé yan motif moo tax ñu refusé ko nag bokk na ci manque ay preuve yoo xamante ni que ni pour mu mën a am liberté provisoire bokk na ci waaye it li nga xamante ni moom mooy immunité parlementaire am mënuñu ko appliquer parce que assemblée moom moo ci war a atout ah voilà mm-hmm. donc loolu bokk na ci ba démb sax tax ba am ay euh, ay militants yu gënoon doon def manifestation donc ñooñu nag euh, ñu jot cee jàpp euh, jo ñeent personnes ñeent mooy quatre ah mm-hmm. Mm-hmm. ñeent personnes donc voilà loolu bokk na ci deuxième actualité eh, eh, troisième actualité bu moo koy tëj Cheikh Tidiane Gadio tey gis nga ni depuis début semaine moom mooy def actualité bi donc journal internet bi xamal nañu ne ni que ci prison bi nga xamante ni moom mooy accueillir Madoff Madoff nag ku ko xam-xam ne euh, benn russe la woon ah sonaloon lakkal huit ñi nga xamante ñoom ñooy américains yi ci ay braquage de banque ak it njuuj njaaj ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon milliardaires yi foofu donc il a fait beaucoup de tort en 2010 en euh, nga xamante ni ñoom ñooy euh, banque américain yi donc gaajo ci prison boobee la nekk prison prison bi nag mi ngi tudd Metropolitan Correctional Center mm. à New York donc ci diggu Manhattan foofu foofu la ne ñu takkale rek prison boobu ak euh, li nga xamante ni moom mooy Guantanamo donc moo mm-hmm. nag ñëpp xam ne ni que ni euh, foofu bokk na ci euh, prison yi gën a euh, yëngatu ci ci àddina bi mhm. donc prison boobu mën nañ ko méngale li nga xamante ni moom mooy Guantanamo mais la mooy particularité bi bokk na ci yi nga xamante ni prison boobu dafa mel ni comme prison bi nga xamante ni am na ay star yoo xamante ni jot na leen fa denc ak yooyu noonu donc mu ngi nekk ci matricule 76 11 00 54 donc en attendant nag ñu xool ay mbiram ba xam fan lay mujj donc voilà loolu bokkoon na ci li nga xam xamante ni moom moo gën a fës donc ngir fàttali euh, mbiru euh, gaajo boobu noonu donc moom dañ ko tuuma dañ koy pré dañ koy tuuma la dañ koy euh, tuuma ah. li nga xamante ni moom mooy corruption ci benn entreprise boo xamante ni chinoise la donc mhm. entreprise boobu nag nekk en collaboration ak réew mi di di Tchad donc nag moom ñu ngi koy tuumaal ci lu tollu 400 millions de dollars ci xaalis kopparu Amérique mhm. voilà jërëjëf euh, Adjara euh, man de bi ma déggee euh, Cheikh Tidiane Gadio mu génn def ay révélation par rapport ak l'Union africaine ce que les présidents africains devaient devraient aborder par rapport à l'évolution de l'Afrique <laughs> je me suis dit yeah, ça sent mal pour lui hein. mm -hmm. parce qu'il y a de ces vérités euh, quand tu le dis tu deviens l'ennemi euh, l'ennemi du système et l'ennemi du système il est recasé vite fait bien fait bon peut-être xëy na dinañ indil ñu ay lever ñu suñu ay Euh, inquiétude wala suñu ay dut ci euh, loolu nga xam ne moom lañ ko téye foofu ca États-Unis yàlla ko yàlla bàyyiwaat mu dellusiwaat ci Sénégal ak càmm ñu xool ba xam fan la wànnent du mujjee ki gëtëm xëy na it état bu Sénégal dinañ ci jox ay jéego ndax doomu Sénégal la ñu jàpp tëj ko te xëy na on y reviendra ci yeneen jotaay. buñ ci amee président Macky Sall wax ci d'ailleurs. Mhm. nee na lépp luy assistance bu mu soxla. Mhm. nañ ko ko nañ ko ko jox parce que doomu Sénégal comme on a dit mais mhm. également lui il est de nationalité américaine. donc gis naa démb je pense su ma jumul maître Ousmane Sey la mu ne ko président Macky Sall. mënu ko assister comme il se doit parce que dafa am nationalité américaine. C'est un donc euh, mais mais, mais euh, il y a d'autres personnes qui disent aussi qu'il avait refusé la nationalité. il l'avait eu en 2000. Il donc avait, même bu ñuy wax ni que il l'avait il l'avait refusé euh, en tout cas ba fii li ñu wax mooy que il est de nationalité américaine. Mhm. et que 2000 la jël euh, nationalité ça fait mine de rien 17 ans donc euh, voilà. kañu suñu ministère yi ay yeneen nationalité la ñuy wax. mais bari na ay binationaux donc. Eh, Mamadou. Sénégal ñi fi yor double nationalité bari na de c'est-à-dire lay dimbale boo nekkee bitim réew di liggéey pour bañ ñu lay kar ci mbedd yeeg di la palpeeg di la laaj say bagage ak yooyu ñu bëri ils préfèrent lijjanti ay papier dëkk boobu ba am seen nationalité doora dellu si waat euh, ci kanam tuuti dinañ fi dalal euh, père Idriss Diop ci rubrique wu Nafi Jëy bi bu <laughs> ànd ak euh, dogalu yàlla moom père Idriss ñàkk suñu papa la père laa da bëggaj papa père bu fii dina xamante nañ <laughs> la def laa la def bëgg ayca ñu dem ci kër yéen kaay li ñu xëy bind tey Coro Mbaar Ndiaye ak Mamadou Mbaye noonu koy nafaral comme ça suñu yeewoo chaque matin dans ce matin c'est à nous la revue de presse maintenant top c'est <clears throat> tey laaj ma ko ma ko tuddee ah Ndiaye revue de presse bi riis na. Mhm. Ndiaye nit ñi dañ may woo si mbedd mi naa Mamadou seen revue de presse laa yaa xam tii. dëgg la. ndax risque gi revue de presse bi risque laaj ma ku ma ko tuddee. tey damay dem ba États-Unis tuddee ko sama mag. Ibou Samb sama xarit. loolu de laa ko tuddee sama mag sama xarit doomu nayu Birame Ndiaye. dëgg la moom laa ko tuddee Ibou Samb bu ngéwél gi famille. Eh. moom laa ko tuddee Ndiaye jërëjëf Ndiaye doo ci wax sax si turandoo bi. ah kay kontaan naa ci ngéwél gi famille lu ci laal ma bëgg. lay la laa kon Ndiaye ñu dem tàmbale koog le quotidien ñaareelu mandat moom sëñ Baye Sy Mansour nee na daan ko am incha allah daan ko falaat na ko sax. ñoom falaat nañu ko bu ñu sukkandikoo ci le quotidien fi nga xamante ne moom moo di Tiwaawoon ñoom falaat nañu président Macky Sall nee na ko di nga am ñaareeli mandat ay kàddu Serigne Baye Sy di xalif général des Tidiane. ci biir journal bi le di le euh, quotidien ñaari mandat moom di nga ko am ba tey kàddu yi Serigne Mbaye Sy Mansour ci Vox Populi yi nee na ko benn moom ñaar rek ci toftalu te yow di nga am ñaareeli euh, mandat bi le mi ngi ci biir journal bi le di Vox euh, Populi président Macky Sall ay kàddoom ba tey ci Vox Populi yi mu ne je tends la mais à tout un chacun Euh, ce n'est pas parce que je incapable nee ku ci nekk mu ngi lay tàllal loxo waaye nag du dafa ñàkk man wala mu tële mu ngi noonu ci biir Vox Populi. enquête mu ne Tivaouane assure un second mandat à Macky Sall Corombaar. Euh, un second mandat à Macky Sall ñi ko assuré ñoom ñoo di waa Tivaouane lu jëm ci présidentielle atum 2019 xalif bi ne ñaareeli mandat rek ngay laaj nee na boo ko boo ko sox euh, vous n'avez pas. demandez un troisième vous l'aurez s'il plaît à mi ngi ci biir enquête yéenekaay mu ne ko li nga defal ëttu këru diine yi ñi la fii jiitu mënuñu ko woon def wala defuñu ko fii mi ngi ci biir enquête. Eh, réew mi quotidien xëy na ñetti information bi ci njëkk Macky Sall ak Tivaouane Corombaar Ndiaye mbiri Khalifa Sall mi ngi ci waaye laq yi am ci pàq yi Macky Sall yëkkati na ci kàddu Corombaar. lu mel ni fële ca Tivaouane na ginnaaw bi mu fa demee moom président Macky Sall ñaareeli mandaawam leer na bu ñu sukkandikoo ci Serigne Mbaye mi nga xamante ni wax na ko ni dina la falaat wala di nga faluwaat mu ngi ci biir réew mi euh, quotidien moom président Macky Sall ba tey moo sàkku daal ñu defal ko audi wu lépp lu jëm ci marché yi ginnaaw bi ñu jógee ci lakkub parc Lambaye audition avortée bu Khalifa Sall ñu ne l'impasse mi ngi ci biir réew mi quotidien les échos ba tey bàyyiwul Macky Sall ak Tivaouane Colomba Ndiaye ci ñaari mandaay yi la ñuy wax ba tey ñu ne ko di nga am ñaareel yi mandat jamais un mi ngi ci biir les échos mu ne ko marqué nga famille religieuse yi ci sa empreinte mi ngi ci biir journal bile mu ne ko bu la bëggul woon jox ñaareel tàmbali mandat du la jox benn bi mi ngi ci biir journal bi mu ne ko fi li nga fi def ci foyer religieux yi amul kenn ci ñi nga xamante ne ñoom nga fi wuutu ku la ko def mi ku ko fi def ngi ci biir journal bi lee di lee di dañuy jàll tey ci Zoom info moom ma ngay wax ak Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga xamante ni yëkkati ne kàddu nee na Macky moom 2019 kenn mënu laa tee falu Coro Mbaar moom falaat na ko ci atuma 2019 moom Serigne Amay Sy Mansour falaat na ko Mariam Faye Sall waaye Serigne Pape Malick Sy moom nag bàyyiwul Mariam Faye Sall mi nga xamante ni mi ngi ko fa doon sax euh, euh, mi ngi fa mi ngi ko fa doon probaval moo mën a waxee noonu. waaw mi ngi ko fa doon tagg di ko wax lu baax tagg na ko waxal na ko ay baax baax mi ngi noonu xalif bi nee na ko jamais un sans deux porte parole bi daal di koy ne Sénégal les Sénégalais sont vaniteux et ne s'occupent pas de leurs femmes. comme le prophète mu mel ni daal moom président Macky Sall mi ngi toppatoo Adjaratou Marième Faye Sall ñu ne entorse à la charia ils ont tous raté la prière de Timis dans son mortar contrairement à Touba mi ngi ci biir journal bi leen di Zoom Info. tribune de visite d'état la wax ci Romar visite d'état li ko waral mooy président PM gouvernement ñëpp dañoo àndandoo dem ca Tiwaawan na seeti xalif bi moom la yéen a kaay groupe des médias bi xëyee ni ki tey. dañuy jàll ci le soleil yëgle kaay mu ma le président Macky Sall à Tiwaawan ci engagement réitéré pour le rayonnement de la cité religieuse. moom daal li ko ñor rek moom président Marème Macky Sall mooy gën a ñoŋal nekk nu li nga xamante ni moom moo di cité religieuse boobule di Tiwaawan mi ngi ci Le Soleil yéen ak. 24 heures yëgle génn na feneen ñëw ci mbir Khalifa Sall audition pour la réveil de l'immunité de Khalifa. chape de plomb sur la commission mu mel ni daal ñoom sax foo la ñu def fa ni kii démb ginnaaw ba leen Khalifa doon xaar mujj leen a teg ay gët maître Assane Dioma Ndiaye nee na schéma bi ñu teg. dañu justice bi da koo daal di faussé Benno Bokk Yaakaar ñoom dinañ rencontrer presse bi ni ki tey bu 9h jotee mbiru Cheikh Tidiane Gadio ñu ne la double nationalité de nos dirigeants à euh, en question ñoom daal ku ci nekk wala bëri na ci ñoom ñaari ci ay nationalité mu mel ni daal lu ñu war a waxtaanee la. dañuy jàll ci yéen a kaay groupe Futurs Médias bi Thioro Mbar Ndiaye ma nga xëyee mbiri Khalifa Sall caisse d'avance da laa gis ak Cécile du doyen des juges. l'observateur ne les dernières cartouches de Khalifa avocat wa mi daal li ñuy sàkk rek mooy ab commission d'expert euh, ab commission ab expert financier ngir mu fouiller ancien maire ye di di Diop ak Pape Diop le maire de Dakar pour publication liste bénéficiaire yu caisse d'avance yi audition wam lu ñeel diggam dafa daal di avorté ñu ne euh, lii di dossier bi annoncé nañu ko en plénière mi ngi ci biir l'observateur négociation yi tàmbali na ci Dakar Times ci Coromar Ndiaye. lu jëm ci ab négociation ngir wala ay négociation ngir ñu libérer Khalifa Sall moom la Dakar Times xëye tey moom sax daal di fësal ci mu njëkk nataalu maire bu Dakar mu reeba kekku mi ngi ci biir journal liberation nee na la gang de nana de Facebook tomb Coromar Ndiaye waaye tamit mbir Cheikh Tidiane Gadio mi ngi ci biir yëglekaay bi libération lu mu wax Joël Chapeau et Madoff euh, mi ngi ci biir journal bi waaye nag ak gangu xale yu jigéen ñu nga xamante ni ñoom chantage extorsion multiple de fonds moom moo tax ñu daan ñu ne sax ab jarbaatu ab leader politique bu siiw sax moom moo daan coaché yi nga xamante ne ñoom ñoo di xale yooyu le ngir ñu mën a piéger ay célébrité wala ay personnalité mi ngi ci biir journal bi ñu ne comment Mansour Dieng bu Icon naka la def ba infiltré boobu les réseaux neutralisés par la division spéciale lépp mi ci biir Libération yéen kay. ku ñu fal nag say mbokk commencé indi trouble Coromar Ndiaye fii Aliou Ngouye Ndiaye le frère am la ñuy wax fii waaye gestion wu kii Baro ca Gambie. mi ngi ci biir yëglekaay bi di lu jëm ci coowal APROSI ñu ne moom frère Aly Ngouille Ndiaye bi le moom moo fa installé trouble le DG limoge les directeurs l'évidence yéen kaay moom la xëyee ni kii tey ñu ne Yaya Jammeh fait du Yaya euh, Barrow fait du Yaya sans Jammeh mu mel ni daal moom soriwul dara ak li nga xamante ni moom la Yaya Jammeh doon def foofu foofule ca Gambie moom la ñu l'évidence xëyee ni ki tey. Ndiaye ñu dem ci mbiri tàggat yaram tey tey sunu làmb rek a fi ñëw xam naa ni esaat ñëwul tey waaye esaat lu tax sunu esaat ñëwul. après dinañ ci zéro waat ñu ñëw ñu ne Assane dans une course contre la montre lu jëm ci li nga xam mooy dédommagement yi nga xam war na ko jox Papa Sow ak ki nga xamante mooy Ama Baldé lu jëm ci seen combat bi nga xamante nii war naa am tey suñu làmb daal di ñëw. indi ci xëtam njëkk ki nga xamante ne mooy Assane Ndiaye waaye Ndiaga Diop di ancien lutteur bu Pikine mi ngi wax ci jongante bi nga xam moo war a dox su diggante Modou ak Lac de Guerre mu ne Modou Lo peut fausser les plans de Lac de mu ngi ci biir yëglekaay bi waaye ba tey mi ngi wax ni Modou na def nànk na def bu baax a baax nànk nànk ndax ki nga xamante ne ni moom mooy Lac de dafa des déedéet ah waaw nee na jël na décision Mor Fadam sur le premier combat de la saison mu war a dox ci diggante Marley ak Diène Kairé mu ne Marley est redoutable Diène Kairé est un peu plus fort loolu mbokk yi moo gën a fës ci ëttu kër yëgle kaay Fall de presse bi nga xam sama mag ji Ibou Samb ko tuddee tey lii moo ci amoon Fall di la sat nag di la gërëm di la ñaan yàlla defal la jàmm wasalaam. maa ngi lay sant man ah, tamit rek ci suuf di la gërëm di la ñaanal yow defal la jàmm docteur Mbaye Ndiaye ci li ngeen ñu ko booleek bonne humeur loolu nañu ko bi à chaque fois bu ñu nekkee ci euh, liggéey bi euh, d'accord euh, je donne à Nafi Aïcha joxal Nafi mu jox téléspectateurs yi ci kanam tuuti rubrique am boobu nga xam ne moom moo di rubrique culture tey jilee moom mooy Thanksgiving dama foogoon ne ñi doon fêté Halloween duñ ko fàtte ah ndax xam nga moom moomu xam nga Thanksgiving ñoom de lan Thanksgiving mooy Thanksgiving la daal fête benn fête en fait américaine la daal ñoom seet yan gaañu bon ci taarix Thanksgiving mu ngi commencé ci jamono ji nga xamante ne ni américain yi yi nga xam ne ñoom ñoo dem fekk indiens yi ci seen territoire bi Christophe Colomb découvrir États-Unis dañu bëri ñoo xam ne dañ leen a yebal ci continent bu bees boobu nga xam ne ci àdduna bi la tàmbale c'était en 800 ñu dem biñ dikkee ci euh, Amérique ñoom ci lañ fekk indien yi mais dañu commencé woon amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan. Mm-hmm. Euh, mu metti woon loolu ci dëkkin bi léegi nag. ñi ñu doon bëgg a commencé xeexal pour nangu seen territoire. Mm-hmm. moom mooy indien yi léegi indien yi invité leen benn jour comme tay jile. Mm-hmm. Euh, benn repas boo xam ne ñoom ñoo koy bokk jour boo xam ne dañuy bokk paix après prêtre yi ak abbé yi boole si seen doole. ñu def ko benn bés boo xamante ni daal bu jotee ci Amérique saa su jotatee ci Amérique dañuy dajaloo lekk dinde mhm. mm, bis bu ñuy lekk dinde la euh, ba Roosevelt ñëwee en tant que président des États-Unis d'Amérique mu chaque le lendemain de Thanksgiving nañ def Black Friday Black Friday nag boobu c'était l'économie américaine qui en, en de s'engouffrer mm le lendemain de Thanksgiving euh, Thanksgiving à la base c'était une fête religieuse mm aujourd'hui c'est oh, devenu une fête un peu célébrée partout dans le monde sans pour autant connaître les origines de cette fête Euh, ce qui est très intéressant c'est que les Américains où qu'ils soient dañuy mel na ñuy dugg ci décembre. parce que mmh. c'est le dernier jeudi euh, du mois de décembre. De, de, de novembre du, mois de novembre. après pour ñu mun dugg ci euh, décembre bi léegi nag le lendemain de Thanksgiving ñu def Black Friday. nga ah xamante ne ni euh, day entamé waale si seen économie parce que ay plus de. 50 euh, millions de d'Américains ñoom ñooy dem si magasin yi di jënd te bu ñu paree war nañ mën a def 50 millions de dollars Euh, ci loolu boo ko calculer fii moom mooy presque budget Sénégal annuel li ñuy soxla pour dund fay sunu ay salaire nangam nangam sunu ay essence. moom la moom la américain yi di. def ci ay jënd jaay mais Pape joxe nii comme info si man j'avais jamais su que. Mm-hmm. Euh, Thanksgiving. Mm-hmm. Euh, moo précédé Black Friday man je pensais que Black Friday c'était juste. casse casse casse cassure des prix les gens viennent. ils achètent solde quoi promotion. mais musuma xalaat ni. c'était le lendemain de de. c'était avec euh, le président Roosevelt et avec son intelligence quand Abraham Lincoln aussi Super. est venu il a essayé de pousser ça mu jege Thanksgiving mais dañ ko doon def Black Friday ak Thanksgiving ñoo ànd. c'est deux mhm. fêtes qui vont ensemble c'est-à-dire solde yi dañ koy ubbi juste pour déclencher les ventes. inciter les consommateurs à aller euh, sur euh, les magasins des Américains pour mun jënd. plus pour mën relever un peu l'économie et ça a porté ses fruits aujourd'hui c'est célébré dans plusieurs pays d'Afrique en France Suisse Danemark fu nekk ci àdduna bi ñu ngi fête fête boobu nga xam ne non seulement le lendemain de Thanksgiving moom mooy Black Friday mais li ci président bi indi woon mooy c'était pour apporter un, euh, un nouveau souffle pour l'économie de de son pays les États-Unis d'Amérique et c'était vraiment quelque chose de bien. mais est-ce que fi ñu ngi appliquer euh, réduction yooyu noonu. réduction yi ah, ah. waaw am na ku ñu fi war a dalal ci kanam tuuti mu ngi ñëw euh, bu yegsee dinañ gën a waxtaan ndax du ñëpp. parce que xamuñu origine fête bi. mais dinañ ci am ñoo xam ne daal tey suñu ay gan lañ dinañ ci waxtaan ak ñoom muy euh, Black Friday. ak Thanksgiving may tey moom mooy Thanksgiving ku am dend ñoom maane saw ñoom xam nga ay américain lañ <laughs> den dem lekki lekki dend waaw <laughs> ku am dend am dend daal boo laafu dend nag bëgg naa ko lool <laughs> ndax yàpp dëgg balaa moo sax day sax ci yax moom du xam na li may wax ndawal bu neex ah, ndawal bu neex day sax ci yax ah, waaw yaa ngi ndawal ko xam ndawal masha Allah doomu géwél la ndawal ndawal lu ndaw año año waaw ah, waaw jërëjëf. protection des animaux. dinañ la seet si moom mooy. ah Fane xar laa wax de protection des animaux mënuñ si man dara maa leen di xaar nañ ñëw. <laughs> su ma gisee ñoo xam ne dañuy bàkkoo ne mbote la nuy lekk dama naan waaw man bu nu lekkee mbote yi kan la nuy am kuy mënu tabaskee waaye yàlla moom day def ay xéwal ba àdduna bi li muy bëri bëri doomu aadama saa su du xëyee mën na noo lekk sunu à notre faim mais du ñëpp nag parce que àdduna bi bëri na ay jafe-jafe ci am a Cissé madame Bonardi moom chaque euh, jeudi day ñëw ak ñun li nga xam ne moom moo di environnement ñu dem xool ko tey daf ñu indil euh, les matières plastiques l'impact que ça peut faire mhm. dans la société et dans l'environnement d'accord mu nekk sujet boo xamante ni je pense que du gulet euh, ñu si àddu parce que euh, d'ailleurs précédent sujet yi ma abordé yëpp jot naa ci wax euh, plastique quand mais tey lii ñu soxal bokk na ci euh, impact comme ni nga ko waxee bi muy am si suñu biir environnement naam sax dëgg la euh, plastique bi nga ko bi nga ko commencé defar ak di ko utiliser nekkoon na benn révolution industrielle boo xamante ni dañuy yombala lu bëri maanaam lu bëri tey ji ñu ngi koy jëfandikoo à base de plastique la mais dañoo dem ba si ay jimmi jamono ñu gis ni que ni li muy yàq moo nar a gën a bëri que lu muy lu muy defar mmh. alors comme ni ma koy tàmm di defee on va regarder un, un reportage boo xamante ni jooju moom moo ko def donc euh, reportage bi dafa accentuer aussi li nga xamante ni moom mooy sac plastique yi jotoo nañ ko fi tere. Oh. waaye ndax loi boobu ñu ngi koy appliquer donc voilà dañuy seetaan reportage bi puis on revient sur le plateau. alors. bouche plastique nekk na li nga xamante ne lu bon ci àllam gi tey ji bonaay boobu ñëpp ñoo ko war a xam. parce que plastique bi bu laloo ci suuf ndox mi du dugg. nga loolu ndox mi bu duggul béy mi du baax jur gi dina ko lekk maa ngi wax ne bërki démb tase nag benn benn xar ci sama booru kër ñu mu tëdd bi mu lekkoon ci ay sachet plastique dafa bëri te moom dañ ko waroon tabaski ak yeneen yeneen bu duggee ci géej gi aussi li muy def ci géej gi mari day taal ak tamit li nga xam ne gis bi rek dafa ñaaw. bu ñuy sukkandikoo ci experts yooyu lee ñu ne sachet plastique yooyu nekk na poson waaye tamit nekk na li nga xamante ne mun na yàq suñu géej yi. ñu seen xel màcc ci wàllum àllam gi dañoo def benn xayma wax nañ ni lu toll 150 millions de tonnes ci sachet plastique looloo am ci suñ géej yi te loolu nag bu ñu ci jógul fii léegi atum 2050 sachet plastique yooyu ñooy gën a bëri jën yi ci géej yi leneen tamit lu jar a xam mooy jën yu bëri dañuy faral di lekk plastique yooyu ba tax ñu bëri ci ñoom dañuy dee. lu gën a garaaw mbuusu plastique yooyu poson la ndaxte ci pétrole lañ koy defaree. jën yooyu dañuy lekk poson boobu te ñun dañuy lekk jën yooyu loolu mooy wane ñun nag dañuy lekk poson te duñ ko tey ngir wàññi jéye yooyu looloo tax nguur Sénégal woote benn loi loi boobu assamble national moo ko woote ci atum 2015 ngir tere mbuus yooyu lee waaye tey ji du mbuus yëpp la ñuy tere comme sachet ko ah, dañ tere Euh, su nekkee ni micronage bi eggul 30 micro dépassé wu ko sachet bi dañ ko tere donc bu nekkee 29 micron bu nekkee 28 micron waru dugg ci réew bi kenn waru ko fi jaay kenn waru ko kenn waru ko utiliser fii Sénégal bii sachet tamit moom dafa am lu ñuy wax noo poumé nit jàppukaay moom mu ngi nii koy tere euh, su nekkee ne manqué na 30 euh, micron ci marché bi application loi boobu daanaka amagul ndaxte comme ni ngeen koy gisee ni ci marché yi mbuus yaa ngi foofu ba léegi. ñi nga xamante ne dañu yëngu ci wàllum environnement maanaam nekk fële ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñoom jàpp nañ ni loi boobu nekkul loi bu mat. loi bi daal ni ma ko gisee mooy loi bi bi ñu koy def ñu ñëpp ñi nga xam ne plastique itteel na leen. loi boo ko jël da ngay xool loi bi na mot mais doo jël benn pàcc rek kii ko parce que li ci des mu ngi foofu bi ñu jëlee loi bi ca njëlbeen nit ñi sax xawoon nañu tiit tuuti denc sachet yi mais comme xam nañ ne Sénégal ñetti weer ñu fàtte lépp génnaat na nit ñaa ngi koy ñu ko jaay ñi di ko jëndee mi ngi fi parce que surveillance bi moo moo amul comme surveillance bi amul dellu si na leneen li aussi mooy sachet bu ñuul yi dem na mais yu jaune a ngi fi yu xonq ngi fi yeneen a ngi fi te lëlee la yëlee doon def yooyu ñoom lay def rek. tey seen bëgg-bëgg. mooy nguur Sénégal am taxawaay bu mel ni fële Rwanda ndaxte foofu Rwanda dañoo interdire bépp mbuus. Rwanda volonté politique la rek ñu bëri ñu ngi koy def ñu ñu jël Rwanda comme exemple parce que ful fulla ak fayda ak volonté politique moo tax ñuy wax Rwanda Rwanda Rwanda bu ñu jëloon Sénégal bu ñu disposition yu mel noonu kon léegi ñu naan Sénégal Sénégal Sénégal. tey jii jàpp nañ ni lu am fële si Rwanda mën na am fii Sénégal waaye laata loolu faaw état Sénégal. amal waxtaan bu baax ak industriel yi ak tamit ñëpp ñu yëngu ci wàllum sachet plastique maanaam bouche yooyu lee amal waxtaan tamit bu am solo ak askan wi loolu yëpp ngir fexe ba Sénégal am xar kanam bi nga xamante ne ñëpp nañ ko roy ci wàllum environnement ak li ni mel. donc voilà gis ngeen ko ci reportage bi donc li sachet plastique yi di andi comme gàkk-gàkk suñu environnement bëri na waaye euh, dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy durée de vie wu euh, général parce que déchet plastique avant muy dégradé wu di éliminé wu carrément ci li nga xamante ni moom mooy suñu dund euh, dina jël lu tollu 400 ans yoo xamante ni du disparaître alors bu ñuy wax en pourcentage tey jii suñuy mbalit maanaam déchets ménagers yi nga xamante ni ñu ngi koy sànni et tout li ci gën a bëri bokk na ci à 25 pour cent li nga xamante ni moom mooy euh, déchets plastiques yi donc bu ñu koy xayma ci poids euh, tonnage bi toll na ci 200 000 200 000 vingt millions euh, deux cent mille du moins tonnes euh, yoo xamante ni euh, que ni moom lay jur chaque chaque année donc te dina yokk également en pourcentage chaque année ci lu tollu 7 pour cent alors yan gàkk-gàkk lay andi ci li nga xamante ni moom mooy aalam bi tey ji gis benn étude montré na que ni lu toll ci un million et demi yoo xamante ni oiseaux yi nga xamante ni ñoom ñooy oiseaux maritimes yi nga xamante ni ñoom ñooy dem des fois da nga koy gis ci documentaire yi sax ko ah. ñooy dem di seppi ci ndox bi di dem hmm. donc en moyenne euh, dina rey lu toll un million et demi ci euh, oiseaux yooyu noonu nga ngeen di gis et en même temps euh, dina rey ci li nga xamante ni moom mooy ay mammifères mooy mala yooyu nga xamante ni ñu ngi dund ci biir ndox mi nekk ay mammifères dina rey lu toll cent mille mammifères chaque année donc euh, mu nekk loo xamante ni lu palpable la ndaxte euh, déchets yooyu ngay gis euh, mu nekk plastique ñu koy sànni fu nekk ngelaw bi di ko sànni égal di ko di ko yóbbu ci ci yeneen ay ay diwaan wala ci biir ndox mi biir géej bi mm-hmm. Mm-hmm. à 10 pour da koy sànni ci yeneen océans yi mais à 70 pour cent day enfoncé wu li nga xamante ni moom mooy ci biir ndox mi donc tey ji gis nañ ay marins yoo xamante ni dañuy dem ci ci ndox bi dugg ci biir biir gis ni ko mbalit mi nekk ci biir dafa bëri de trop mm-hmm. te loolu mën a andi bokk na ci comme ni ñu ko waxee ci biir reportage yi jën yi nga xamante dañuy lekk li nga xamante ni mooy plastique yooyu nga xamante baaxul bokk na ci également mbaal yi nga xamante ni pêcheurs yi ñu koy sànni ci ndox mi wala mu mhm. leen di rëcc ñuy wadd donc loolu day nekk ci biir ndox mi et en même temps su nekkee ci biir ndox bi day piégé yi nga xamante ni ñoom ay ay ay ay espèces lañ ay espèce yoo xamante ni maanaam lu mel ni ay crabe des trucs da leen di piéger daal di leen mbaal yooyu noonu da di euh, piéger soit ñu dee ak ndax xiif wala soit mhm. euh, ñu dee ci li nga xamante ni moom mooy euh, plastique boobu nga xamante ni ñu ngi koy lekk donc bëri na tey ci ay mala yoo xamante ni ñu ngi dee di disparaître xamuñu lan moo ko waral donc bokk na ci cause yooyu noonu war ko mën a andi madame balaa ngay sori mhm. fii nii au Sénégal mhm. bi nit ñi waxuñu fi woon loi bu wax ne dañoo tere jaay muusu palaas wax nañ ko fi mais dinaa ci ñëw euh, dinaa dinaa la répondre kon ma samp foofu sama foofu sa sa baaraam dinaa ñëw donc euh, yeneen ci ay euh, causes yoo xamante ni da koy andi comme dégradation au niveau de l'environnement li nga xamante ni moom mooy stagnation des eaux te ku dégg stagnation des eaux dina sa xel dina dem ci ay yoo mhm. ndaxte yooyu ci ndox moom di stagné wu ci la ñuy nekk mhm. donc mbuusu plastique yooyu day dem ba day solu ci day boucher canaux yi nga xamante ni moo war Euh, évacuer euh, ndox mu salte mi ak ndoxu euh, pluie bi mmh. li nga xamante ni moom moo war a dem du dem day mmh. stagné wu donc li ngay faral di gis di nga dem ci ay koñ nga gis ndox mi salte wala nga gis diwaan ba xeeñ wala am odeur ndox mi di ball ak yooyu noonu mmh. donc bokk na ci déchets plastiques yi nga xamante ni day boucher canaux yooyu noonu donc lu ñu ci gën a gis bokk na ci li nga xamante ni moom mooy gën a Euh, favoriser paludisme fii ci Sénégal ci ci Sénégal mm. na am sax nekk na combat boo xamante ne bëgg nañ ko gagné waaye déchet plastique yi euh, bu ñu moytuwulee du ñu ko yombal daal maanaam euh, te it li leen ci li ma bëgg wax par rapport ak déchet plastique yi bokk na ci également li nga xamante ni moom mooy soli tey jii gis nañ euh, prouvé nañ que ni euh, lu gën a bëri ci euh, déchets plastiques yi nekk ci suñu environnement. Mhm. day gasu suulu ci li nga xamante ni moom mooy suuf si te suuf si bu demee ba benn période nga xamante ni comme ni ma ko rappelé day yàgg ay ay ay année année lay jël ngir plastique yooyu mën disparaître. 400 ans ñeenti téeméeri at ñeenti téeméeri at donc voilà donc su tawee da ngay gis ni que taw bi du mën a yegg ci nappe phréatique bi donc day stagné wu également ci li nga xamante ni moom mooy première couche. couche donc day tax euh, tey euh, baykat yi duñu mën a def ay forage day day day day wowal li nga xamante ni moom mooy suuf si ba nga xamante ni tey boo gasee pour euh, mu am forage wala ay puits affaire yooyu da koy da koy naqare daal day day kekk <laughs> nafi nee ni suuf bi day kekk suuf bi day kekk donc voilà déchet plastique bokk na ci li nga xamante ni euh, daf koy andi waaye beneen phénomène boo xamante ni euh, c'est très important à rappeler maa ngi koy wax léegi ci euh, animaux aquatiques yi nga xamante ni dañuy am difficulté à chaque fois pour reproduire am na benn phénomène bu am mooy reproduction des tortues des tortues de mer euh, fii ci Sénégal nekkoon nañ également ci benn dynamisme boo xamante ni reproduction yooyu bëri woon na ba ñuy wax ay villages des tortues des trucs mmh. du genre mmh. donc Sénégal xamee woon ne ko quand même que ci zone bu favorable la pour mmh. euh, reproduction li nga xamante ni moom mooy tortues yi mais tey euh, reproduction boobu dafa wàññeeku bu baax ndax bokk na ci gis nga gars yi bu ñu demee plage wala bu ñu demee ay sorteek yooyu da ngay gis que ni mbali mi dañ koy sànni ci plage yi wala li nga xamante ni moom la géej bi di rejeté dafay ñëw directement si plastique yooyu day tax euh, li nga xamante ni moom mooy tortue suñu génnee dañ koy teg lekk wala refuge donc dañ koy lekk euh, suñ ko lekkee nag ça prend trois jours ñu am ay métit yu bëri si seen euh, yaram ci seen mm-hmm. organisme balaa ñuy dee mm-hmm. déjà balaa ñuy dee dañuy souffrir puisque c'est des matières yoo xamante ni nekkul seen lekk et en même temps pour ñu jur ay doom donc déjà rek Euh, boo posonoo doo mën a jur donc voilà moo tax tortue moom euh, nekk na benn espèce boo xamante ni euh, c'est en danger mhm. war nañ ko mën protéger par rapport ak suñu sensibilisation ci li nga xamante ni moom mooy ci ay affaire sa déchet mhm. plastique alors pour revenir un peu ci conséquences yi gis nañ ni que dëgg la loi bi may laaj léegi Modou mbay dëgg la voté nañ ko depuis 2015 euh, mais euh, fii gis nga Sénégal c'est c'est c'est très rare ñu gis euh, benn loi bu ñu bu bu am application Diallo Ndiaye mu mbuus laa ko mujjee dégg. ah gis nga bi laa toog mu ne xale bi dugg Diallo Ndiaye mu mbuus <laughs> yegale. te li li ngay eh, eh, xaar ba mu pare sama question mais c'est dans la même lancée. ok c'est la même lancée. xam nga li ma jaaxal Sénégal Maodo mu ngi koy laajte léegi loi bi ñu waxoon pour les déchets plastiques lii mu ma fekkoon loi bi mu ma fekkoon may def rubrique le marché ce qui veut dire que ça devait entrer en vigueur le 4 janvier 2016. Mm-hmm. on est le combien 23 novembre 2017 c'est grave mm-hmm. c'est c'est c'est très grave les gens continuent à acheter ça mm-hmm. euh, après mu dugg ci suuf bi biodégradable c'est c'est c'est très grave ah, euh, euh, c'est très important li nga wax parce que fii Sénégal seetlu bi moom ci loi yëpp la fii moom dañuy voter ay loi mais application bi voilà application bi euh, day jafe ndax li koy andi nag bokk na ci euh, loi yooyu suñ koy voté en général du ñu concerté wu ak ñi nga xamante ni ñoom la concerné par exemple commerçant yi euh, suñ leen euh, peut-être woowoon ñu def benn réunion comme dialogue ñu waxtaan xam ne lii lii lay andi je pense que ñoom di dinañ conscient en premier que ni lii si seen intérêt la donc dinañ andi ay yeneen solution yeneen woon mi ngi koy andi te nit ñi peut-être prêté wuñu ci attention c'est que même plastique yooyu noonu suñ ko éliminé tey yeneen sachet yi ñuy utiliser dañ koy jaay léegi économiquement day am rapport économiquement parce que matière yooyu ñuy utiliser c'est euh, carton lay nekk wala du mhm. genre donc moo gën a euh, moo gën a euh, moins transformation bi mooy gën a yomb que euh, transformation plastique mhm. donc déjà ci transformation ak si commercialisation yi euh, on y gagne doublement alors maa ngi doon wax léegi nii ci euh, le fait de faire disparaître ces déchets plastiques gis nañ ko ni loi bi am na mais amul suivi mais li gën a doy waar bokk na ci li nga xamante ni population gis ngeen dañuy dem di lakk ay mbalit di lakk mbalit mi te mbalit yooyu noonu day bokk ci ay déchets plastiques yoo xamante ni daf ciy bokk donc gaz toxique boobu muy dégager day polluer li nga xamante ni moom mooy euh, air bi donc nekk na beneen facteur boo xamante ni day euh, favoriser li nga xamante ni moom mooy réchauffement climatique benn exemple exemple sax laay wax laay joxe ci mbir moomee li tax déchet plastique bon ci environnement tey euh, pollution de l'air boobu noonu ak li muy yàq ci alam bi bokk na ci suñu couche zone comme ni ñu ko doon rappeler à chaque fois parce que réchauffement climatique bi moom mooy tax couche d'ozone moom mooy tax phénomène yooyu di am donc gis nañ que ni euh, ci ay diwaan ci Afrique comme lu mel ni lac càdd euh, tey euh, lac càdd bokk na ci lac bi nga xamante ni nekk na cours bu gën a mag ci Afrique mais tey jii boo fa demee dangay dox ak sa tànk daal di daal di jéggi daal di dara du la surux du hmm. am dara même jën yi sax dañuy ay tuuti jën nga fay gis lan moo ko andi réchauffement climatique boobu noonu te réchauffement climatique bi li ko andi bokk na ci déchets plastiques yi donc danga ngay que ni dafay tàng de telle sorte que ndox mi day évaporer wu te su évaporé woo moom mooy wàññi euh, hauteur u euh, li nga xamante ni moom mooy profondeur u euh, lac lac boobu noonu. Mm-hmm. ma joxe beneen exemple wala sama. jaxal jaxal jaxal jaxal jaxal ajara jot si waaye yaa ngi wax lu ne rek waxal. <laughs> am na tamit benn benn découverte bu ñu def ci océan Pacifique on l'appelle le septième continent. alors le septième continent nag bokk na ci euh, li nga xamante ni moom mooy euh, déchet plastique yi nga xamante ni naawee na fu ne rek comme ni nga koy waxee <laughs> naawee na fu nekk ci àdduna bi ci ah. continent yëpp day ñëw ba ci benn moment ci euh, ci ci océan Pacifique daal di def ngan ngandi accumulation en fait déchet plastique yooyu day dem accumuler accumuler wu ba tolloog deux fois li nga xamante ni moom mooy tayu pays bu mel ni France pour te dire en déchets plastiques on l'appelle le septième continent ay déchets plastiques kese la. donc c'est mm. c'est quelque chose boo xam ne ça fait froid au dos d'autant plus qu'on parle du fait que euh, tey jii euh, suñu alam bi euh, rabu àll yi dund ci ndox mi ils en souffrent énormément donc loolu nekk benn découverte boo xamante ni ça fait froid au dos et je pense que ci convention internationale yi quand même ils sont en train de prendre en charge li nga xamante ni moom mooy mbir moomee ndaxte day andi lu lu bëri bëri bëri li nga xamante ni moom mooy phénomène yi yëpp ma jot a énuméré voilà fii dafa doon wax léegi ne euh, Sénégal lañ fi interdire njaayum si plastique yi waaw jërëjëf maa ngi lay jox beneen information boo xam ne froid au corps la lay jox xam nga dóor rek nga froid fi mu ne nii biñ ko interdire am na benn reportage buñ fi ma seetaan ak PND lu mbedd mi wax mu ñuy yëgal ne usines yi nekkoon di defar sachet en plastique Gambie bañ leen daaxee ndax décision boobu Sénégal ak Gambie bokkoon nañ ci ñi jëlandoo woon décision boobu ne châssis dootul am dafa dugg dans un premier temps boutique bu mu joxee ñetti dërëm ñu jox ko mbuus mbuus yi dañ ko wàññi dañ ko aaye mu gën a cher ba pare boutique boo dugg am na fa donc je me demande est-ce a un travail a été fait loolu nga xam ne bi beneen bi ci des moom mooy euh, usines yi nekkoon euh, bitim réew bu euh, ci mel ne Gambie bi ñu gën a jege dañu ñëw ba Kaolack implanté wu fa donc mbuus yu bëri yu ñuy utiliser te am na benn usine usine bu nekkoon fii nii ci booru euh, Beaux Maraîchers boo xam ne ay sachets en plastique la doon defar mhm. dañ ko tëj mais radicalement quoi ils ont été radicaux sur la question mhm. kenn liggéeyatu fa ñi fa doon liggéey yëpp ils sont partis au chômage parce que loolu lañ xam mais usine par contre bi nekk euh, Kaolack ñoom ñooy continuer di alimenter Sénégal chaque jour plus de 2 millions ou 3 millions de sachets en plastique waaw Sosonap mi ngi ambalee mais en même temps euh, li ma bëggoon fàttali tey Sénégal quand même am na ay entreprises ak ay jeunes yu conscients ci li nga xamante ni moom impact bu mu am déchet plastique yi mhm. bëgguma tudd entreprise bi mais am na benn entreprise boo xamante ni déjà c'est des femmes yoo xamante ni euh, dëgg la jigéen day defar donc jigéen ñooñu conscient nañ ci euh, consciente nañ ci li nga xamante ni moom mooy euh, li déchet plastique yi di andi donc société boobu day daal di jël récupérer ci mbalit yi lépp loo xamante ni plastique la donc dem transformer ko ko ci entreprise bi mhm. donc suñ ko transformer nag li ñu transformer bokk na ci ay meubles en art artistique des trucs comme ça bokk na ci également ay satala des trucs xamante ni nit ñi dañ koy soxla euh, dans la vie de tous les jours donc ñu essayer di di di euh, di ko recycler mhm. euh, à leur manière mais loolu dañ ko waroon a appuyer nag mu nekk un truc à grande échelle nga xamante ne nii man mi nga xam ne defuma dara su ma paree émission ma dem fort ñeenti saaku mbuus ñëw am ci benn 1000 francs dem sama gaale teg caa nag gaay ah Père Lara Bëgg ci vient d'arriver sur le plateau xanaa balaa. tund ba rek na <laughs> jàmbaare wàcc daas uran <laughs> waaw lii la tampon la woon. <laughs> mère mais père laa la bëgg a jëlee la Nafi euh, balaa nga koy euh, dugg si seen rubrique culture ma ma ko ci environnement parce que moom aussi euh, je pense que am na si lu mu war a wax si par rapport à ce qu'on dit sur l'environnement aujourd'hui les sachets en plastique deviennent de plus en plus des trucs nocifs à l'environnement père lan nga si wax bu ma la ba pare. waaw mais di di leen delloo nuyoo bi di kontaan vraiment yow gëj naa la gis. da nga ma bàyyi su ma doom ji yow sax gëj naa la gis. maa ngi nii père depuis Diourbel ba ah. naa ah. gëj a gis di di nuyu <laughs> vraiment su ma su ma su ma doom ji su ma su ma su ma fils bi aussi. waaw bi nga waaye bi di nuyu Nafi di nuyu. Ajara et di kontaan nag teew fi vraiment si seen plateau bi. merci beaucoup salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum adduna bi yëpp. mais di kontaan ci question boobu parce que l'environnement c'est un problème très sérieux mm. euh, il faut moi je pense qu'il faut une conscience collective mm. xam nga conscience collective mooy il faut ñu ñu ñaax nit ñi wax ak nit ñi ba nga xam ne dinañu conscient que mbuus yooyu ñuy dajale muy mu mu nekk ci géej gi nekk fa comme euh, lu ëpp réew deux fois la France c'est inimaginable pourtant dafa am loolu dafa am donc il faudrait que ñu ñu ñaaxaat nit ñi daal ñu am ñu am ñu am benn euh, njàngat ci bi parce que planète bi dafa important ñun ñooy borom ñoo ko moom mm-hmm. tu vois luñ ci euh, comme ni ma koy waxee na ñu bàyyi nature bi mm-hmm. ni ko yàlla sàkkee mm-hmm. voilà wax naa ko yàgg na. Mm-hmm, waaw quarante plus de quarante ans. leneen mm-hmm. euh, bu ñu bu ñu ci bàyyee xel je pense que dinañu mun a euh, dinañu mun a bàyyil suñu suñu génération yi ñëw. Mm-hmm. benn planète bu bu rafet bu bu yànj bu bu. bu am am gën a nice gën a nice li fi nekk parce que nit ñi dañuy conscience boobu. discipline. xam nga ñun africain aussi nañu waxante dëgg li ñuy manqué souvent. mooy la discipline. bien entendu. waaw discipline. Mm. dañu des fois dañuy da ngay gis ku kii mbuus sax naan rek sànni. xam nga kooku yooyu aussi day bokkaat ci gën yokk euh, dégradation. absolument kooku kooku indiscipline la te indiscipline boobu. Mm-hmm. tant que mu ngi am ci réew. Mm-hmm. réew boobu du mun a am na yu bari yoo xam du ci mun a avancer. il faut mm-hmm. vraiment une euh, ñu dellu siwaat xel yi dellu siwaat euh, waxtaan yi ci famille yi parce que ñun à notre époque. xaw ma ndax daa war naa ko wax sax. mais suñu jamono ñun. mais dañu daan yedd ci yu bari ah. Hmm. dañu daan amuñu woon droit def yenn yi parce que euh, xam nga tu avais même pas peur mais da nga xawoon am kersa. ci ki nga xam ni mooy mag sa bopp voilà loo jombale sa bopp. léegi nag cette génération là j'ai comme l'impression ah. Mm -hmm. c'est juste euh, une impression. Mais c'est la réalité. que que que dañu jombalewul seen bopp yu bari. Mm-hmm. parce que foog ngay. taataan ci ci et puis planète dafa ñun ñoo ko moom. ñooy borom. Mm-hmm. ñoo ko war a defaral suñu bopp. Mm-hmm. voilà jërëjëf Père Idi ci loolu nga mës a wax ko bàyyiwaat ci xel ñiy déglu Père Idrissa Diop bi nga xam ne tey moo nekk ganu Nafi Dieye ci rubrique culture moom mooy nanu bàyyi nature bi ni ko yàlla sàkkee dafa am benn euh, environnementiste nord-coréen qui a dit une grande phrase qui a été vraiment discutée lors du euh, G xaw ma G20 mooy yooyu g mm-hmm. foofa ca France mu ne. l'homme est l'ennemi de la nature numéro un l'homme de la de la nature COP 23 en Allemagne voilà moo nekkoon euh, Allemagne. Euh, Adjara Cissé madame Bonardi merci beaucoup pour la pertinence de cette euh, de la rubrique. comme d'habitude hein la dernière fois c'était l'avancée de la mer aujourd'hui c'est l'impact. que pour sa côté nga wàcc ne <laughs> ba léegi bana ma dama jëloon léegi <laughs> bana ma jeex na <laughs> def naa la mun na la rek ayca dañu dem ci wàllu rubrique culture Adjara sant naa la bu baax gërëm la te di la invité nga toog des am na yeneen yu ñu war a waxtaane euh, environnement bi <laughs> euh, la ñuy génn dugg culture ah euh, Soxna Nafi Dieye nga indi icône ci Sénégal mm-hmm. koo xam ne il a eu à beaucoup de bonnes choses mm-hmm. il nous a bercé il nous a éduqué à travers sa parole et sa musique sa belle voix aussi assez particulier nous recevons aujourd'hui dans ta rubrique Père Idrissa Diop ma bàyyi la ngeen seet waxtaan wu yaatu mm-hmm. ci présentation i danañ si boole copain El Hadj Begaay Waay waaw ah, ah, ah, ki ma fi dalal nag tey Père Idrissa lañ koy wax doomu yaayu papa Bekaay ah. bari na papaay Modou Mbaye ak Soro Mbaye Ndiaye ak Sidi Fall ak Adjara ak man mii toog alors euh, je pense que les présentations ont déjà été faites xanaa ñu mhm. jublu rek directement papa ci laaj yi man nag euh, foo nekkoon moom yaakaar naa ni jarul ma la koy laaj ndax euh, les gens ñu ngi ñu ngi suivre sa actualité un peu partout xanaa ma laaj la rek musique sénégalaise bu papa l'état l'état du marché musical sénégalais tu la vois comment euh, état d'esprit musique sénégalaise ah, musique bi mi ngi dox ah y a y a des trucs qui sont positifs ah y a des jeunes yoo nga xam ne ñu ngi def affaire liggéey bu am solo man dans le mouvement hip hop yi nga xam ne ñoom laa gën jege. vraiment ñu ngi def liggéey bu am solo. wax ji nga xam dañu dafa nëbbu. ñu ngi koy génne di ko siiwal di ko saaw ba ñëpp jot ci. donc euh, musique sénégalaise bi typiquement bi nga xam ni mooy mooy mbalax bi aussi sa bouge pas mal. il y de des comme ay ay Pape Diouf ay ay El Hadji ay euh, ay Wally Seck suma doom yooyu ñu ngi koy ñu ngi koy xeex mais nag li des mooy justement euh, bàyyi xel si lu am importance lu am solo taalif yi man taalif yi ci lay gën a gën a gën a ñaax xale yi ci mm-hmm. musique sénégalaise parce que parfois taalif yi wax yi mm-hmm. des fois da ngay dégg ne wax yi dafa dafa woyof quoi dafa mm-hmm. comme disait Ndiaga Mbaye yow euh, way bu yeetewul xam nga ah voilà ay naxel la quoi donc il faut il faut que ñu bàyyi xel ci ay taalif ay ay bind loolu daal laa indi kii mais sinon au niveau de l'énergie des jeunes là musiciens yi c'est magnifique ah. booy waale buy tëgg par exemple tu vois tous les jeunes là qui s'excitent qui euh, les gens ne ne vont jamais dans du ñu dem fu dara nekkul. Mm. les gens du ñu topp nit koo xam ne jamais dara nekku fa. Mm-hmm. Papa Diouf buy tëgg da ngay gis ne nit ñi am na lu fa nekk quoi. Mm. mais loolu fa nekk na dañ ko war a dañ ko war a yaatal ñu liggéey ci texte texte yi liggéeyaat ci. ci environnement musical bi et tout mais sinon. ça va moi tu sais j'aime pas j'aime pas critiquer parce que ñun suñu époque dafa dafa doyoon waar ah. suñu jamono ñun. Mhm. ñun amuñu woon sax ampli bu ñu kii benn ampli la ñuy teg. je me rappelle euh, ampli ay dafu la woon ay marque yooyu. Mhm. da ngay branché micro ci biir branché guitare ci biir branché basse bi ci biir même ampli bi. Mhm. aujourd'hui on booy am nañu panoplie ouverture am na la technologie et tout ça. bu ñu bu ñu taxawee sant ci ah, ah, ñu taxawee foofu noonu ci booy yi parce que euh, quand tu quand tu que parce que euh, boo nee euh, que ça va. et que d'autres personnes en parallèle disent que la musique sénégalaise n'arrive pas à s'exporter notamment le mbalax Euh, yéen seen temps lañ daan gis euh, benn euh, père Idrissa Diop Carlos Santana su ma juumul woo ko téléphone ne ko dama bëgg a ñëw dama bëgg nga ñëw ñu liggéey. <laughs> mu mu dem pendant des années ñu parcourir le le monde entier. Euh, nga gis beneen Youssou Ndour naka noonu euh, am na kenn ku ku mag ku participer largement ci ci carrière musicale am keneen na keneen noonu lan moo tax suñu suñu suñu suñu xale yi amuñu ko alors que époque bi ñuy dund ñoom moo gën a moderne gën a ànd ak euh, développement wu technologie ñuy utiliser pour woy je sais pas si je me fais comprendre. oui oui oui mais bon xam nga man man man xaritu ñëpp laa man man maa ëmb booy yëpp. jeunes yi et tout ça suma ay members la ñu suma ay xarit mais époque yi li tax ma la époque yi dafa dafa wuute aujourd'hui bu ma bu ma xoolee ñun fi ñu jaar suñu époque ah pour pour parce que dañu amoon aussi ouverture temps boobu noonu musique latine moo fi nekkoon mm-hmm. musique latine c'est la musique qui te forge à jouer avec ban mun naa jouer chinois bi sax bu tëgee nii ma ma jouer moom mm-hmm. aw ma benn problème ci côté boobu mais aujourd'hui il faut savoir que boo demee Cameroun dañu am seen sol seen makusa foofu nga dem Zaïre dañu am seen rumba foofu xam nga nga dem Côte d'Ivoire dañu am seen but sisi la ñuy wax xawma seen rythme yi nga dem Jamaïque am nañu seen reggae foofu ñun am nañu suñu mbalax fii li ñuy wax naan exporter souvent man dafa may jaaxal quoi Euh, mbalax bi ñi ko ñi ko war a comprendre tu vois maintenant des japonais des chinois des des. nu mu tuuti. waaw waaw des des américains des, des américains des euh, gens qui qui qui viennent au service de la au service de la de la de la de la de la musique mhm. sénégalaise et musique sénégalaise boobu dafa am solo mhm. trop trop trop du si bàyyi xel mhm. évolution nag mënul am sans que mu am yenn yenn problème yi ko mm-hmm. mais xale yi ñu ngi wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi bu baax David. bien sûr ñu bu baax. d'accord mais man suma expérience bi nga wax noonu ak ak Carlos Santana. Mm-hmm. ak ñoom Quincy Jones ak ñoom Stevie Wonder ak ñoom Narada ak ñoom in euh, dem si yàlla si Whitney Houston Aretha Franklin man daje na ak ñëpp ñu bari. Mm-hmm. ñëpp daje ak ñoom. ñëpp daje naa ñoom def ak ñoom ay plateau def ak ñoom ay ay ay invitation ay ay guest ay yu kenn xamul. Mhm. mais loolu xam nga lan moo ma ko jox. mooy suma euh, curiosité aussi bi ma am. bi ma teel a am bi ma nekkee xale. curieux de comprendre c'est quoi la musique latine c'est quoi la musique arabe c'est quoi la musique euh, euh tu vois pentatonique de chez nous parce que man très tôt je suis parti de Dakar dem ay Casamance kii ay. ay. Euh, waaw waaw ay yu kenn xamul ay ay dëkk yu bari ci Sénégal fii pour faire ces recherches là boo yi nag temps boobu peut-être la ñu amul pour def recherche yooyu. Mhm. mais bu ñu amee temps def recherche yooyu dañu mën a comprendre beaucoup beaucoup de choses dans la. mooy da cëkkali pantalon ak sori man li ma ko buggoon laaj sax moo ci ñoom ak xale yi tey tey mhm. moom ci boppam bu doon wax différence bi tuuti xëy na sax xaw na ci évoqué tuuti rek mhm. mais boo ñu doon wax carrément différence bi lan moo lan moo différencier yéen seen génération ak xale yi mhm. mais déjà li différent li différent mooy époque bi ñun amuñu woon man la ñun bi ñu daan joué amuñu woon yenn armes yi ah dañ daan joué on faisait de balles pour les les bonnes là xam nga mina yi daan liggéey ci ci kër yi tous les vendredis ak tous les samedis ñu dëral leen ay morceaux yu tàng jër ñu fecc. mais boobu àdduna bëggoon nañ leen. bu baax ñu ngi leen doon topp tey jii nii xale yi am nañ matériel bi am nañ lépp te ba tey ñi ngi wax ci wax export musique bi génne formation bi aussi formation bi est-ce que du école boo xamante ni école boo xamante ni c'est renommé xam ne lii euh, li lañ fay jàngale art musique est-ce que loolu manqué wuñu ba pare ak ndaanaan ñi leen waroon aussi est-ce que du loolu defoon di waaw loolu loolu aussi Modou loolu aussi ci la ah c'est vrai mais bon boo xoolee bu baax aujourd'hui euh, il est temps que quand même ñu xam ne les les époques ou les les temps ont changé. Mmh, mmh, mmh. Hein? Les temps ont changé, les gens sont beaucoup plus dans mais ñun suñu époque même dañu amoon benn benn affaire bu nga xam ni <laughs> c'est c'était c'était c'était magnifique parce que il y avait ce côté de se toucher de se frotter amul woon affaire u star yooyu ah ñun suñu époque amul woon yooyu ñun on se touchait on se frottait on était ensemble dans un local là di répéter di ñafe di jouer tous les vendredis tous les samedis mais dañ ko daan dañu bokkoon lépp quoi aujourd'hui je pense que individualité boobu aussi dafay poser un gros problème dans la musique Moi, ici au Sénégal je sama laaj parce que gis nañ fii euh, super étoile ak super jamono. Mhm. concurrence bu ne dox na ci seen diggante mais masul yàq dara ci diggante yu Ndour ak ki nga xamante ne moom moo di Omar Pène ba fii ñu toog euh, est-ce que du quelque part également man dama jàpp ne mag ñi ñu ngi fi mais xale yi. demuñu peut-être vers ñoom euh, gis nañ fi euh, dernièrement pour prendre l'exemple de Pape Diouf bu nga xam ne dem na fi benn duo ak benn Oumar Bassoum mais ci ginnaaw gi da ngay gis keneen ku nga xamante ne peut-être préféré dem def duo ak Wizkid peut-être moo ko gënal def duo à la base d'abord ak sa Diop même su fekkee ni que ouverture kenn waxul warul am dem woy ak keneen ku nekk ci bitim réew warul am mais est-ce waruñu ko njëkkee d'abord ci mag ñi nekk ci réew mi ñu rootee ci ñoom ba pare non mais de toute façon euh, Thioro loolu nga wax dafa am importance parce que euh, ku xamul fa ngay fa nga fa nga fa nga wéeru c'est-à-dire fa ngay taataama li nga am bu sa cosaan boo ko xamulee doo proliférer mukk ci musique gis nga je vais dire par exemple da nga wax affaire da nga wax Youssou Ndour gis nga Youssou Ndour li ko may li mu am tey xam lenn rek la ah benn phrase clé man xam naa ko bu baax a baax xam nga wayam yi yi mu jëkk a way man mii maako bi bind jox ko ko moom Youssou Ndour wooy ko comprendre fi may waxee donc mais benn affaire la am boo xam ne moo ko topp ba léegi mu am li mu am nekk ki mu nekk xam mooy lan mooy discipline mm-hmm. dafa am discipline Youssou c'est un homme très rigoureux à l'âge de quinze seize ans déjà man maa ngi doon xool di déceler loolu li mu am tey maa ko doon déceler kii ah macha allah dafa am yar am discipline il était tout le temps dama koy faral di wax avant tout le monde en répétition moo daan jiit ñëpp moo fa daan mujjee jóge et tout ça ça suit sa carrière loolu loolu moo moo moo am importance ci adduna bi mm. danga war a am benn comportement exemplaire da nga war a am discipline boo xam ne moom ngay doxee mm. loolu la peut-être xale yi ah xale yi tey aussi loolu manqué na leen lool coro Hmm. manqué na leen lool. moi je me dis père le principal problème pour man di ma la déggee ni nga defee ces résumé ak euh, li nga ñu expliqué. moi je me dis que le principal problème des jeunes moom mooy li ñu am ci avancement de la technologie. parce que bu njëkk ba yéen da ngeen doon jël la peine répéter. toj seen baat. tàggat seen bopp ci yeneen univers musical bu nekk ci àdduna bi ngeen jéem ko gëstu jéem ko xool. maintenant c'est plus le cas. Hmm. boo dikkee ci studio bi am na dropping. nga way juum jàppalewaat la c'est une musique assistée par ordinateur MAO mm-hmm. donc ça ça devient un réel problème pour les jeunes mm-hmm. pour ñu mun a am eh, étaler seen ay euh, tentacule fu nekk ci musique bu nekk mm-hmm. mën ci poser wu facilement et puis ndaanaan nekk si ñoom loolu je pense que mooy mooy principal problème bi quoi euh, man dama seetlu euh, Nicolas Nicolas Diop moom en général dama koy gis trop si staffu ki nga xamante ni moom mooy Cherlo et tout le monde sait que Cherlo c'est quand même un monument de la musique sénégalaise donc dañ koy gis à chaque fois ci ginnaawam donc je pense que moom nekk na ci dynamisme boobu pour faire une petite parenthèse par rapport ak euh, maa ngi koy gis mu ngi def promotion albumam il fait des choses super bien affaire yu artistique lay dafay des choses qui sortent carrément de l'ordinaire mhm. et qui donnent en plus notre touche d'africanité mhm. donc est-ce que euh, conseil la ou bien euh, daf la laaj avant que muy euh, dugg ci li nga xamante non Nicolas Nicolas c'est mon fils ah man maay papam euh, ñëpp xam ko mi ngi mi ngi def mi ngi def affaire bu am solo mi ngi liggéey liggéey bu am solo vraiment di ko teg ci anam yu wóor en tant qu'animateur mm. en tant que euh, slameur et tout ça donc man amul dara lu ma ko ci apporté nag xanaa peut-être deret ji quoi mm. mais vraiment di ko di ko saluer au passage suma doom la di kontaan ci li muy def di ko encourager bu baax vraiment di ko wax ni ben écoute euh, I love you voilà. Euh, je l'aime beaucoup et que <laughs> je le vois de, de là. voilà père I love you too. voilà donc euh, donc il fait un travail magnifique ouais. mais pour revenir à ce que tu disais gis nga gis nga aujourd'hui la musique a besoin euh, la musique ici au Sénégal a besoin d'être entourée fokk ñu wër ko ñi ko war a wër ñoo ko wërul. ñi war a wax ci musique bi ñoo waxul. ci musique bi ñoo ko war a ñoo war a wax ci musique bi. est-ce que du papa est-ce que du est-ce que du parce que man justement foofu laa <laughs> bëgg a ñëw euh, Père man je trouve sincèrement que yéen a ngi doon yaa ngi wax léegi que texte yi c'est c'est vide euh, que dañu war a dellu ci taalif yi war a de est-ce que gënul vraiment parce que man je pense personnellement que la nouvelle génération qui est là. ku leen woo ci atelier de formation ku leen woo ci atelier de renforcement de capacité ne leen kaa leen ngeen toog ngeen yokk seen seen seen seen ay yëf euh, bu ñu jëlee ku ci mel ni yow ku ci mel ni Papa Youssou Ismaïla euh, euh, Omar ñu jiite xale yi jàngal leen du ñu bañ loolu benn vendredi samedi dimanche dañ koy def renforcer seen ay capacités en musique en parole et cetera et cetera après def dañ ciy jóge sax yokk seen ay relation mu gën a tax parce que bari na ci ay relation yu tondu mais yéen tamit bu fekkente ni fu ngeen toog rek ne xale yi meluñu ne ñun xale yi meluñu ne ñun point sans sans sans naka lañ koy waxee. sans suggéré xale yi nga naan xale yi dem ci paa. non non xale yi fi toog ñoom la ñuy tëqale paa yi nii. fi mu toll nii non non mais Nafi man waxewuma foofu ah. non je parle dans le général. je sais que waxewuloo foofu mais dama ne bu. bu bu mag ñi ba may suggéré rek préconiser ay solution bu ngeen jëloon def ay atelier tëju fenn fu nga xam ne journaliste du fa dugg taskatu xibaar waxe noppi. jàngal xale yi ci parole jàngal xale yi ci. sembe jàngal xale yi ci saako mais Nafi est-ce que xale yi ñu war a dem vers mag ñi. mais loolu nag gis nga loolu li muy wax ni man lay rejoindre gis nga gis nga ñun suñu époque doyloo wuñu woon suñu bopp quoi dañ daan dem di seeti mag ñi man à l'époque je me rappelle dama daan seeti euh, Samba Jabare Samb man Ndiaye Samb ak Ablaye Naar Samb dama leen daan topp comme comme ñu naan mi xale bi lu mu ñuy toppee di maa ngi woon ak benn dictaphone bu fatigué ci leen doon dem di leen enregistré booba temps j'avais quoi 14 ans 15 ans mais j'avais amour boobu daf ma toppoon loolu may wax boo bëggee xam sa doole réew da ngay xam sa sa say maami réew mm-hmm. li ñu fi bàyyi nga nga koy fay nga fay mm-hmm. loolu moo lay inspiré loolu man bu ma demee par exemple ba dajeek musiciens yi ma dajeel ci adduna bi yëpp loolu moo ma ko may ah c'est mm-hmm. ce Sénégal là qui m'a donné ce ce truc c'est pas en Chine ou au Japon c'est le Sénégal qui m'a donné cette force là mais problème bi mooy comme comme je dis Nafi les gens qu'il faut à la place qu'il faut souvent dañuy jël au ministère de la culture j'interpelle d'ailleurs le ministre là dañuy jël ay nit ñu nga xam ni c'est pas ils peuvent pas xoolal man aujourd'hui j'ai ouvert un studio d'enregistrement qui s'appelle Ngor Island euh, musique benn structure bu mag la man suma suma suma associé euh, Vincent d'ailleurs que je salue dañ ko tijji pour justement jàppale musique bi et même avant may tijji tijji avant ñuy tijji loolu man dama daan jàppale musique bi dama daan dugg studio ak des jeunes des mm-hmm. trucs ak yooyu mm-hmm. produire leen may leen CD yi kii yàgg naa ko def mm-hmm. mais problème mooy aujourd'hui i faudrait que au niveau de la culture des des institutions ñu euh, ce que je dis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ñun mën nañu dimbali musique bi mais il faudrait que ñu laaj ñu suñu avis mais Sodav bi ñu jàppale tout de suite musique bi ba mu ba ah di ngeen bu ñu bu ñu laajee ñun suñu avis dinañu dégg leneen lu ñu mosul dégg fii nag Sénégal mais ñun boo ñu boo ñu laajul suñu avis ñu toog jàpp suñu jàmbur ça nous empêche pas de de de de faire ce qu'on ce qu'on fait tout le temps. Uh-huh. voilà euh, Sodaar jot ngeen 2 milliards xanaa ñu ñëw ayca fa ayca ayca. Sodaar jot nañ 2 milliards xanaa léegi loolu problème yu bëri dinañ ko résoudre. ah incha allah j' espère. mais yow tu Papa Idi Ba j' espère que tu es vraiment impliqué dans la gestion euh, collective de la Sodav wala. oui man j' encourage surtout man suma suma brode yi nekk foofu muy ñoom euh, Alaaji Maan muy ñoom ñoom Xumaan. Mm. gaa yoo fa nekk ak voilà Iba Gueye Massar et euh, et et Ngoné Ngoné Ngoné Ndour mm. que j'encourage vraiment Ngoné maa ngi koy encouragé parce que eh, mi ngi liggéey mi ngi def mm. affaire bu rafet di ko teg ci aman anam yu parce que li ñuy wax Sénégal xam lan moo fi moo fi kii mooy euh, la critique est aisée mm-hmm. mais l'art est difficile mm-hmm. Mm-hmm. xam nga action action dafa difficile Ngoné bi ñu ko fa tegee Sodav ba léegi mi ngi def liggéey mais sous-marin kenn déggu ko de. Mhm. mais mi ngi liggéey liggéey bu am solo. bés bu defee nii nag bu émerger bu buñ ko waree xam danañ ko xam deux milliards yooyu ngay wax ba dina am yu bari yu mu yu mu mën a régler et puis gunge gunge la culture parce que culture waruñu ko rek teg ci musique aussi. Mhm. culture dafa vaste. Mhm. il y a beaucoup de gens qui qui vivent de la culture en général. donc euh, donc voilà. Euh, deux milliards yooyu incha allah yàlla xanaa ñu ñëw rek très rapidement ci album bi ñuy mhm. fàttali nii xam nga moom ah, dafay faral di ñu ñamal rek daw moo ñu ñamaloon Nobel toog lu yàgg doog indiwaat li nga xamante ni moom moo di ah, mu ngi ko duppee eh, sa Diop chante Seydina Issa Wade alors su suñu mënee am rek xëy na eh, titrage bi naka la deme wala loo foo lu la inspiré ba nga tuddee parce que su ma juumul Seydina Issa Wade c'était un parolier c'était un très très très grand musicien mm-hmm. musicien moom moo jëkk indi folk musique folk bi ñoom Pape Cheikh di jouer mhm. ak ñoom euh, Yoro Ndiaye ak yooyu yëpp moom moo ko fi jëkk indi ah euh, comme musicien donc je me devais et puis j'ai cheminé avec lui mhm. pendant très très longtemps mhm. j'ai fait beaucoup de choses avec lui mais texte yi mu fi bàyyi moom moo daan wax ne mag du caaxaan borom bi jaaw du foo moom moo daan wax ne Euh, nit ki di nga ko teg dof te fekk bi wuti garab ngir faj la yow mi ko teg dof mm-hmm. Mm-hmm. c'est très mm-hmm. moo wax ne yeewu leen ngir lëndëm jeex fi jóg leen jóg leen yaa y' de quarante ans il écrit il a daan wax libaasa laay mooy resoolu laay bàyyi laay baax na tuubi leen tuubi leen ca yoof moo daan wax yu bëree bari te teg texte yooyu moom laa commencé ci li ma posé moom laay tontu aussi mais ma ni la gis nga taalif dafa important quand bu lépp demee lépp demaa taalif rek moo fiy des. mode de musique beeg. moo lépp lépp bu demee. texte yi rek moo fiy des. taalif dafa important te Seydina il fait partie des gens qui ont écrit les plus belles pages. de l'écriture parolier au niveau des des des paroles ci li ma gëm. xam nga kii par exemple mooy euh, mooy seeni doom bu Khalil Gibran. Mm-hmm. donc def na ko aussi. euh, remémorer le texte de Khalil Gibran dans un livre qui s'appelle Le Prophète. Mhm. bi nga xam ni mooy moo moo la réinterprété def ko seeni doom donc man daal loolu moo tax et puis je me devais de de lui rendre hommage par rapport à ça par rapport au vécu par rapport à à ce qu'il a laissé comme comme comme misaal daal ci ci mm. li nga xam ni moom laa gëm. Mm. loolu je me devais je lui devais ça def naa ko c'était presque ma mission. jagleel na ko ko jagleel ko waa Sénégal yëpp euh, voilà. voilà Pape Sidi album bi na alors certainement. c'est disponible où? c'est sur les points de vente yi nga xamante ni xëy na ñoom ñooy yëngu ci wàllu wi euh, xanaa defoo xanaa. <laughs> non non defuma loolu disque bi c'est très. Euh, voilà c'est très mu ngi doon mu ngi doon daal. voilà livraison à domicile. voilà exactement yooyu daal lañ koy <laughs> mais ci c'est ci mi ngi mi ngi ci musique bi. bien sûr musique bi point com mi ngi foofu quoi voilà. mais il est là. D'ailleurs, on est en train de préparer un duo. Il est à Dakar. yéen à Dakar waaw. Ah, oh. man ak Wasis dinaa ñëw kon comme tonton Wasis ñëw na dinaa ñëw. man ak Wasis Diop ñu ngi préparé benn duo bu bu doy waar. incha allah mm. ah voilà ñu ngi koy. Eh, laar bëgg laar daxin yow. Eh, laar daxin yow. Eh, mais. <laughs> comme ça ah, incha allah maa ngi lay xaar. tonton Wasis laa doon xaar mu ñëw. Ah, mi mi ngi fi mi ngi fi. ne change de rien reste comme ça père. laar bëgg laar dugg si hip hop bi yëngal ko. bien génn dem si Paaw Mbalax maa nii bon leen yaay seen bandi. <laughs> <laughs> kii moo réew yow xale <laughs> Moi Sidi. Euh, alors l'agenda culturel. Voilà, l'agenda voilà. Il faut rappeler qu'aujourd'hui sera la cérémonie officielle d'ouverture de la 16e édition du Foire internationale euh, du livre. Inch'Allah mu nekk lu nga xam fil dak waaw. Mhm. mu nekk lu nga xamante ni du am solo la ndax euh, ñëpp ñi nga xamante ni di dañuy yëngu ci wàllum jaay ak jëndum livre ak nafar sax dañuy daje. Euh, fii échanger déjà seeni ay livres tam na permettre xale yi nga xamante ne ñoom ñoo ne ci réew mi yàgg wër ay livres yu nga xamante ni amuñu ko bu ñu demee dinañ ko fa mën a am bu ñu amee chance sax dajee ka nga xamante ni moom moo ko bind mu expliquer leen ci yenn anam la ko la ko defaree woon baax mm-hmm. yeneen dotation yu nga xamante ni am na fële au sein de au sein du ministère de la culture mu di eh, dañoo yëkkati daal ay équipement yu tolloog 403 eh, millions daal di koy jagleel centre culturel yi nga xamante ni ñoom ñoo ne ci réew mi alors Abdoulatif Coulibaly moom jot naa posé boobule acte bu fort ñi nga xamante ni ñoo yor yooyu le centre culturel nag rafetlu ko torop mm-hmm. waaw moom daal jot naa def benn ah. jërëjëf jërëjëf Ousmane Sembène tam dañ koy defal colloque. waaw waaw justement Ousmane Sembène dañ koy defal colloque te ca ca cinéastes yi ñoom ñoo ko def pour vraiment jàng ca la nga xamante ne xëy na moom moo di héritage euh, bi mu fi bàyyi loolu moom dama fay dama fay dem bu soobee yàlla. j'ai j'ai entendu euh, Maria de Carlos Santana qui a été repris récemment par euh, Rihanna. Yeah, par Rihanna ouais. Mais ça, ça te fait quoi quand tu as entendu? Ah, c'est magnifique parce que bi ñuy bi ñuy tabax <laughs> uh-huh. déjà déjà Maria Maria bi ñu koy tabax maa ngi toog. maa ngi toog ak Carlos Santana. donc voilà euh, ah, wallaay wallaay suma gars yooyu. Eh. donc je profite aussi de l'occasion pour vraiment annoncer. <laughs> sunu papa Idrissa Diabe. <laughs> annoncer ñaari nouvelle je joue vendredi. Mm-hmm. Euh, c'est demain non. bien sûr vendredi je joue à Fële nu mu tuddati à l'endroit. bien entendu ah. votre gars là il est là-bas souvent. Momo bu xees ki. waaw Momo. waaw ci fay gis tout le temps. def sax lay dox. demain vendredi ñëw leen l'endroit demain et puis samedi. inchallah je vais jouer au petit théâtre. foofu nag ñuy xaar sénégalais yëpp. vraiment on va faire un spectacle. assez particulier. avant d'attaquer le le grand théâtre. parce que ñu ngi préparer grand théâtre. mais di remercier vraiment inchallah di remercier vraiment tous les gens qui nous qui m'ont soutenu. à toutes les personnes qui m'ont soutenu par rapport à l'événement que je faisais le 28 mm. euh, octobre dernier. ci mm-hmm. remerciement bi mooy may jiital vraiment le président Macky Sall il nous a beaucoup mm. euh, ak ñoo Souleymane Jules Diop ñoom in euh, Seydou Gueye. Mm. président Ablaye Wade aussi tout ce le staff machin ñoom ñëpp daal. di delloo njukkal di leen wax merci beaucoup de soutenir la musique du Sénégal. waaw parce que ñu koy arrêté ñu yeggali suñu rubrique yi ci des. ayca mbokk arrêté na merci beaucoup Père Idi euh, donc il vous donne rendez demain foofu nga xam ne moo di l'endroit euh, le samedi aussi moo ngi petit théâtre dem leen ngeen tàcc ko parce que Père Idi moom musique am. am na déglu dal am na boo bëggee yëngal ci say mbagg yi. yàggaay yàggaay. ayca Thioro Mbar Ndiaye dama waroon def euh, clip du jour waaye temps bi li ma ci des bu ma ko defee Oustaz Dame dóor ma ma dee même nekk. Oustaz Dame suba dama koy préparé. je prépare oustaz Dame Thioro Mbaye Ndiaye actualité people tey. Euh, Ndiaye ma tagal la ko nii tagal ñu dañu koy euh, démarrer ak euh, li nga xamante ni moom moo di mbiru Yaama. Yaama bu Sen TV. ak démission wam ci boobu boobule groupe mu mel ni nag ginnaaw ki nga xamante ni moom moo di Mame Gor Ngom mi doon moom mi nga xamante ni moom moo doon coordonné rédaction wu rédaction wu La Tribune démissionné na cette fois-ci nag yaama moom moo ci tegu bu ñu euh, sukkandikoo ci suñu naataangoo yu Dakar Buzz ginnaaw moom ñu dem ci Ibou Touré kor Adja Diallo comme pour dire que moom daal Adja jigadiwu ko ndax moom Ibou Touré fi mu nekk nii nag am na beneen club bu bees bu nga ah, xamante ne nii fa lay dem nag jongante ji ni ki atuma ren ñu bu ñu jógee ci moom itamit ñu jàll ci ah, Pape njaay Souaré mi nga xamante ni ginnaaw accident bu nga xamante ni moom ah, defoon na ko fi ci amoon na boobu ak léegi ay jamono moom sax nag fi mu tollu nii moom Pape Ndiaye Souaré dañ koy topp pour conduite dangereuse dangereuse moom sax moom ma Pape Ndiaye soirée dinañ ko jugé ci weerum juillet atuma 2018 mhm. la war a doon mhm. incha allah ginnaaw moom ñu jàll ci Ndeye Astou Sall Miss Sénégal 2016 moom également elle a fêté la journée de l'enfance à sa manière elle s'est rendue fi nga xam ne moom moo di orphelinat vivre ensemble bu Mbour fi nga xamante ni dem na rek ngir appuyer gune yi mu nekkoon ay moment de communion ak xale yi entre xale yi ak moom mhm. mu doonoon itamit moment bu nga xamante ne ay gestes yu émouvant moom moo fa amoon ngir yóbbu leen eh, ay dund ak yeneen ngir gën a ñoŋal seen nekkin ca boobule orphelinat mu doon nag geste bu nga xamante ne beaucoup d'internautes salué nañ ko surtout que moom xale la à son âge peut-être xelam mënoon na daj ci leneen mais léegi boobu bi ñu ko falee miis ak léegi jàpp nañ ni que kombaawam daf ko gën a porté jëmale ko ci eh, xale yi ginnaaw moom ñu jàll ci Sidy Lamine Niass mi nga xamante ni diggam ak waa Sonatel fu mu toll nii nag naqari na mer na ba futti moom Sidi Lamine dafa am ay serveur am yu nga xamante ne ci région yu bëri yu nga xamante ne doxul ci jamono ji bu ci mel ni bu euh, bu Walfadjri Kaolack Walfadjri Touba. ñoom Mamadou Matar Sarr ah, ak waa ak Walfadjri Louga donc nag jamono ji serveur yi doxul boobu ak léegi nag moom mu ngi bëgg rek ñu indi ko ci ay saafara waaye boobu ak léegi mënul euh, nekk ba tax na daal moom fi mu toll ni ultimatum la leen euh, jox. moom daal li mu bëgg rek mooy ñu rétabliraat ay serveur am ci anam bu gën a gaaw. da koy xaalis dëgg la. li ko mooy ah, mu nar ñoom mel na ni daal du neex. tàngalal ki nga xamante ni moom moo di Kane Diallo yëkkati ay kàddu nag moom ñëw ci li nga xamante ni moom moo di musigam ginnaaw bi muy jàkkaarloo réew mi info mu wax ni moom idolam Thione Seck la donc dafay jànge ci moom lu bare bare wax ni tamit yu Ndour masul wax ni moom mooy le meilleur ay kàddu kan jàlloo ak suñu naataango yu réew mi Dakar Buzz di ko reprendre ñu wax ci Serigne Assane Mbacké mi nga xamante ni moom ak soxnaam di Ndeye Fatou Ndiaye madame Mbacke am nañu doom bu góor boo xam ne ngénte nañu ko sax ni kii démba ñu ngi ko tuddee xalif général des euh, porte parole xalif général de Mourides di Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacke ginnaaw gi sëñ Assane Mbacke mooy bi doon def politique waa te muy politique mu sëñ Ateex waaw voilà sëñ Falloy maamam mi ngoog donc euh, gis nañ ni que tamit ay hommes religieux yu bëri bëri bëri ñëwoon nañu ci boobule tudd nga xamante ni école boobu dinaa ci jaan ñëw man maa la koy ñëwal bugaan jàllal ci bugaan d'accord ni ma ko waxee woon na sànq nga xamante ni euh, tuddee nañu doom bi ba Bassirou Abdou Khadre euh, Mbacké xanaa rek di ñaan mu dund te am ndey ak euh, baay ñu wax ci Bougane Gueye Dany mi nga xamante ni moom également il a fait une sortie pour dénoncer esclavage bi nga xamante ni am na ci foofule ca Libye moom ak ki nga xamante ni moom moo ji Claude Siard ñu doon ñu nga xamante ni seen ay seen seen seen ay kàddu bokk na ci ñi gën a marqué peut-être internautes ci moom Bougane ak ni nga xamante ni noonu la ko waxee ak franchise bu mu ci àndal mu ne nous ne sommes pas maudits nous sommes tous responsables di ay kàddu Bougane Gueye Dany PDG groupe des médias ngir rek ñaawlu ñaawte fi nga xamante ne moom moo am foofule Euh, ca euh, Libye ñu ñëw ci week bi ñu génn wax ci Wally Seck ak ñaari trophée yi mu am ci APA mm, Award mm, même trophée yooyu Viviane itamit daal di ci am foofu la ci États-Unis waaye également wax ci Bercy bu Youssou Ndour mu mel ni week-end la woon bu riche waaye week-end la woon bu nga xamante ne ah, daanaka musique sénégalaise moom moo ci euh, gagné donc APA Awards yi ñu demoon Viviane nekk fa best female artiste maanaam artiste bu jigéen bu gën a ràññeeku bu góor bi di Wally Seck meilleur duo di Wally Seck mais quand même euh, l' attraction de ce week-end reste le Bercy bu Youssou Ndour fi nga xamante ni il a encore démontré li nga xamante ne moom moo di suprématie wam ci wàllug euh, musique mu yóbbu aada ak cosaanu Sénégal foofu la ca France mu mu dajalewaat 20 spectateur ñëpp ñëw wuy si ci Bercy. kenn de kii ñu ñu ñu fàttali ne que à un mois de l' événement peut-être la def guichet fermé. gis nañ tamit réaction wu ñenn ñu nga xamante ne mënuñu woon dugg et ils étaient énormément nombreux ci biti ñoom aussi xaw a mer le fait que ñu déplacé wu ñu jóge Allemagne ñi Suisse fu nekk ci àdduna nit jóge fa pour seetaan si ko malheureusement mënuñu woon accéder ci salle bi. Youssou également il a tenu à demander pardon ñooñu noonu nga xamante te mënuñoo dugg. entre ah. parenthèses. lu mm-hmm. tax Sénégalais yi soxor. Mm-hmm. y en a des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux en disant que RFI la ñu dégg mu ne Youssou Ndour 15000 par. RFI dafa Fall doo ma sarax ñu école loolu loolu école leen eh eh. eh, eh ko yow Adjara. RFI nee na dafa juum. na fi yow wax nga mooy dinaa wax li ngay def si télé bi. quand RFI a dit que Youssou Ndour a joué devant 15000 spectateurs. ils ont dit que c'était une que lii nii ñun suñuy bët sax say mbokk dem nañ baa say xarit compté naa ko ni eh, eh, eh, yow ñëwal ci question après ñu wax ci loolu Fall donc ñu dinañ ñëw ci loolu peut-être après ñu ñëw ci Hervé Renard Hervé Renard nag moom entraîneur la moom xam ngeen Hervé Renard di ko dëgg la na bu ma ko dama ko nopp loolu dafa nga du teggi tuuma ah. elle est belle Hervé Renard euh, ak ki nga xamante ni moom moo ji doomam donc Hervé Renard dañ ko invité woon benn plateau télévision donc bi mu fa nekkee nag commencé émission à un moment donné dafa am benn voix bu ñëw di wax ak moom mais il savait pas que c'était sa fille ci instant boobule donc bi nga xamante ni ñëw na di euh, di di wax euh, laajam bu njëkk bi mu ko laajee ne ko ndax à un moment donné tu avais envie de peut-être ma def dara loo xamante ne nakari na la nga bugg ko fàcc wala yooyu il a dit non sans pour autant xam ni que c'était sa fille qui parlait. Mm-hmm. donc après la ñu continuer bi mu retourné wee la xam ni que doomam la. donc beneen question bu ko doom bi laaj également mooy papa est-ce que tu serais prêt à m'échanger contre une coupe du monde donc Hervé Renard a hésité benn instant noppi on sentait que à un moment donné am na loo xamante ne neex na ci xolam donc ci benn geste la ko la njëkk a def pour dire non donc par la suite la wax ni que jamais du échanger doomam bi ak coupe du <laughs> monde parce que doomam la bu nga xamante ne daf ko bëgg daf ko porter ci xolam donc ku ci nekk ak éloge nga xamante ne moom nga jëmale ci sa morom mu doonoon nag ay moments yu nga xamante ne des moments très émouvants dama gis sama bop ak sama papa quand j'ai regardé doom ndeyam da caa dëgg bu koy nampal da voilà on parle également de Kim Kardashian ak Beyoncé ñoom ñi nga xamante ne on dit que ay la lañu en fait ce qui est ce qui est quelquefois avéré donc Kim Kardashian et eh Beyoncé diva rivale au mariage de Serena Williams ñu ne nag gën nañu xam un peu ci ñoom ñaar li waral seen diggante taxatul waaye daal loo ci mën a dégg ku ci nekk rek def nga sa yëfi star te xew ma keroog ñoom ñaar ñëpp sañse nañ waaw voilà takk nañ ko donc ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk sañse nga sañse bu jekk vraiment mu mel ni daal paparazzi yi ku ci nekk yaa ngi daw jëmale ci ñoom ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Beyoncé ak Kim Kardashian ñu jeexalee ko ak Malia Obama mi nga xamante ni découvrir nañu son tout nouveau copain moom Malia euh, Obama il s'appelle Harvard son copain mu mel ni sax dañu leen a gis en fait ñuy euh, fóonante. ah waaw donc paparazzi yi. ñàkk na sa yooyu bàyyi di ko wax fii donc euh, paparazzi ils en ont profité. pour euh, photo leen. donc photo yi di nekk nag di def tuuru toile bi. donc mu ngi nii fi mu nekk nii daal mu mel ni daal moom nëbbatootul nëbbatootul plutôt ñu ne ces premières images privées yu nga xamante ne image yu amour la. fu mu toll nii nag fësal nañu ko ñu fàttali ni moom étudiante a 19 ans ak fekk ca mbedd ma nuy tuxante waaye loolu daganul arabul ci tubaab bi Fall. far wuy tux euh, euh, far ak corom daal. Fall. Euh, Nabou daal li wax lu ne <laughs> Nafi la. Nafi yow Pape Sidi. sëñ Assane Mbacke. sëñ Fall maamam. dëgg la. sëñ tuddee na sëñ Abou doom. bu tuddee sëñ Bass Abdou Khadre doom wàcc na Fall kii li tax ma sopp ko patriote la mhm. sëñ Assane Mbacké mhm. wallaahi duy dóor ah, ah, balaak maara yaa ko wax ci télé bi nga ma ko wax <laughs> balaak maara maa ngi lay siyaar lépp wallaahi patriotisme laa ko bëggee mënoon na ni Mbacké Mbacké la am na yu bari du ci dugg mais dañ koy gis muy xeexal doomi réew mi maa lay siyaar yow suñu attee sa baay boo defee nii wàcc nga beneen bés des yu papa yu c'est le yu you are the best waaw kooku <laughs> wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd ci moom Papa Youssou lu tax ndax ni ñuy représenté ni muy représenté Sénégal mhm. bu demee am ay trophée ñëw féetewaat ko ak waa Sénégal Bercy li muy rey rëy li àddina di bari ndaanaan nii Youssou di def Bercy ñu ko koy def mm, mm, mm, man nag sama yoon nekku ci mbiri tubaab mais ci Afrique gii ñi fiy def nii Youssou di def Bercy am non même les blancs de deux personnes ñoo ko mos a feesal de toute l'histoire mondiale musicale je te dis c'est jay ak euh, beneen group bu ko bu nga xamante ni jazz groupe jazz à part loolu à part loolu ñi bu ñuy tëgg day fees mais fees mais pas te moom mii da koy feesal at mu jot yàlla na ko yàlla mën loo saa su ne waaye nag nag nag bu mu soñoon mu ñëw senegal fii yokkal na ko sunu économie bu ko tëggee stade amitié à Fass foofu dana waaj mu ne waxal li nga waxoon dem ci hmm? compagnie aérienne rek day bëri wax na dëgg. jërëjëf euh, Thioro Mbar Ndiaye ci xabaar yi nga nu indil ci ñi siiw ci biir réew mi ak ci bitim réew kon ma ma sama xel génn naa ko si gone ga ab Obama sa baay war na ma waaye garaawul amul problème dinaa waat sama sas ñoom Ndéla ñoom euh, Aïssa Toog ñoom Fatou yi ci réew mi Père Idrissa merci beaucoup. d'avoir effectué le déplacement merci beaucoup euh, xam nañ ne yow fajar gi booy fanaan studio lay métti. jaaf ba njëkk si nga ci ñun jërëjëf sant nañ la bu baax gërëm et puis yow suñu gaañ nga quoi. non non su may xarit ngeen non su may xarit ngeen. maa ngi leen di vraiment sant di leen gërëm coro nag yow. il faut nga ñëw seet suñu de. ah waaw <laughs> nee naa la comme tonton Waziz ñëw na dinaa ñëw. yow tam sama doom ji ma foog nga ñëw. damay ñëw gis gis nga ni mu niroog bàyyam yow. <laughs> gis nga dama xool gis di gis Bécaye. waaw doomu sa baax. yaa baax papa Bécaye Mbaye il est exceptionnel. koy nuyu di ko bëggee. ma nga fara ñu non non non Bécaye. toogal foofu noppal sa yaram ba ci kanam. nga maay booy a ngi géré. voilà yow yaa ngi géré. as difficile parce que oto bi fu ne lay dem rek <laughs> oto baa ngi dem fu ne. oto bi ku ko moom <laughs> merci beaucoup Nafi Dieye Adjara merci beaucoup à vous aussi merci beaucoup à l'ensemble des techniciens qui nous ont permis de pouvoir faire cette émission euh, coolement et simplement techniquement génial merci beaucoup on vous donne rendez-vous demain inshallah suba la ñuy waxtaan ci Black Friday dañ koy écho ba suba inshallah passez d'agréables da dagg leen ñu coupé leen émission